mu ngeen yendoo ñu ngi leen di gërëm ci ànd ak télévision Futur Média dellusiwaat nañu ni ñu koy defee guddi àjjuma bu jot ak bëccëgug àjjuma ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal man ak Oustaz Modou Fall di jotaay bi nga xamee nii da ngeen koy xaar daanaka tout le temps euh, di ko dund euh, par rapport ak euh, replay yeeg riposte yi loolu ñu ngi leen ci gërëm waaye itam direct bi dafay dàqati puisque dañuy nekk en contact direct et en temps réel ak yéen ñi nga xamee ni yéen ñuy seetaan moo xam ci seen i téléviseur wala ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi foofe itam euh, la ca am solo mooy euh, lu ngeen am comme commentaire wala laaj bu leen neexee yónnee ñu ko euh, ci hashtag bi di midi plus ci kanam Kia moo koy taataan jox ma ko ma jébbal ko Oustaz Modou Fall yaa ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel def ni tubaab yi wala def ni waa jamono di la wax bon année bon santé bon ananas yaa Oustaz. jërëjëf El Hadj maa ngi lay nuyu. Mhm. maa ngi lay ndokkeel maa ngi lay ziar. maa ngi lay bëggee maa ngi feddali itam sama diggante ak yow. Mm-hmm. di la ñaanal yàlla jàmm ak sutura yàlla mi ko am yàlla na la ko yàlla jox. allahumma amiin ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. njëkke nuyoo bi nag alaaji Pape ci kilifa diine yi nu am ci biir réew mi yëpp. Mm-hmm. jiital ci sunu xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour. ñaanal ko yàlla bu baax yàlla na ko yàlla dolli wér. allahumma amiin suñu ko nuyoo nuyu nañu sunu sëriñ sëriñ Moustapha Sy bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin. nuyu itam sunu sëriñ sëriñ Moustapha si bu sëriñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum sunu soppee nuyu njabootu Seydil Hadj Malick yëpp waaye Pape noonu la ñuy nuyoo itam suñu maam ju tedd ja nekk Touba mu di sëriñ Muntaxa ñu ñaanal ko téeméeri at yu tàmbali tey ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu Cheikh Mahi Niass ca Kaolack nuyu njabootu Seydina Limaamu gépp nuyu njabootu Cheikh Abdoul Khadir Gayla eh, Jeylaani mu di chéri surafa yu tedd yi nuyu président de la république alxaaji Macky sàll ñaanal ko yàlla moom itam yàlla na ko yàlla dollee sàmm demam gi yàlla na ko jikk moom da xam naa buy dem war na maa moo woyal ko Macky yaa ngi foo jublu yàlla na fa yóol na fa yiwu yàlla jëm alaaji Pape noonu lañ ko doon yaa ngi dem sa dem ne xuñu <laughs> gisoo sa yaay ji keroog ma mu ngi woon ci baal bi wala jotoo si taan vidéo yi <laughs> gàdd na saagam ba rek ku fecc mu fecc ku fotowu mu fotowu maa bëgg Marème Faye Sall yàlla na fi yàgg te ànd. Eh, Alaaji Pape sunu dafa simple quoi moom. non dafa modeste. ci ëllëg sa dem na ca Baalu Carlo di ba yëg nga lool. jigéenu Sénégal boo koy wër jàppal Marème Faye Sall. laay ma nga woon ca Baal ba de. moom dafa jekku kaw ba pare. ndax cër yi ko yàlla defal. wàccee boppam mu taamu suuf. wallaahi wallaahi. te Pape ku mel noonu la réew mi soxla. wallaahi wallaahi démb damay toog ba mu yàgg ma ni cey. Hmm. malaat yi ku leen di jël di leen yóbbu bitim réew. dëgg la de bu Marème demee ah xëy ah ki fi ki fi ñëwit loolu la loolu looloo ko war. pape social bi Marème Faye Sall di def ci réew mii. di mhm. faj nit ñi. Mhm. alaaji pape di dimbali néew ji doole yi. ci mhm. alalam. nit ku baax la de. moo tax barki démb toog naa ba mu yàgg ma ni yàlla. jële nga ci réew mi ñu baax de. mais dinañu dinañu jox ñu baax <laughs> parce que ñun itam defuñu defuñu loo xam ne daf fii jëlee ñu baax. di ñu di ñu tegal ñeneen ñu. dul ñu baax alaaji Pape réew mu Macky Sall jóge Marème Faye sàll jóge fa. Mm-hmm. yàlla jëlee na fa ñu baax ci néew. wallaay wallaay wallaay ndeysaan. wallaay ndeysaan. yal na leen yàlla sàmm. allahumma amiin yal na leen yàlla kattanal alaaji Pape. allahumma amiin ñaanal président Youssou Ndour. Mm-hmm. alaaji Pape wallaay borom patron boobu nga xam ni. borom baal bi. <laughs> borom baal bi <laughs> loolu borom baal bi. <laughs> borom grand bal bi. Alaaji Pape sunu patron boobu yàlla na yàlla guddal. amiin waay amiin waay mooy nit ko baax nag. waaw kenn gënu ko. moom daal li ko yàlla defal bu la déranger da ngay laaj audience ca yàlla mu recevoir la nga ne ko Youssou Ndour laa bëgg li nga ko may nga nangu ko. Mm-hmm. ci oustaz moom dafa lëkkaloo ko waykat yëpp dafa lëkkaloo ko waykat yëpp. fa ñu dégg naa waykat bi jóge ma li nga jëlanteel ki way faati jëli jëli faati <laughs> parce que waa Mali itam est-ce que xam ngeen ni Mali ak gàmbi ak Mauritanie gi ñoom ñoo ñu gën a bëgg Oustaz Modou Fall man mosuma gis loolu maanaam dëkk boo ca dem rek da ngay gis ni ñii dañoo bëgg Oustaz Modou Fall xanaa ñoom amuñu ay oustaz ci seen i dëkk. <laughs> bambara ba ñëw na rek seen ki way woy boobu ngeen jël fan yi faati jigi léegi faati rek gis oustaz bi hee oustaz Modou ma ne ko yow kon da xam turam <laughs> oustaz Modou Fall nag yaay international mais Youssou Ndour yàlla na gudd fan euh, ku ne amin yàlla na nga gudd fan mais Pape moom moom hmm. dañu koy sagoo wallaay alaaji pap ku am patron bu mel ni Youssou Ndour war nga koo sagoo dëgg la de dëgg la de dëgg la de ñi mu bot ci ginnaawam gii hmm. di leen rogganti. Mm. ku yabu ñaanal ko gudd fan. wallaahi wallaahi. ku baax ñun dañu fier ci taxaw di wax ni ku baax la. wallaahi wallaahi. waaw yal na ko yàlla dollee sàmm. yàlla dolli ko dëgëral. mu dund téeméeri at nag yoo xam ne tey lay. commencé ak mën a wax lu rëy tey loolu la jël. yàlla na dund téeméeri at yoo xam ni tey lay commencé. ci daraja yonent bi. <laughs> sallallahu alayhi wa sallam. ñaanal ko mboolem personnel bu télévision Futurs Médias. ak képp kuy woykat. <laughs> ah ñu ngi liggéey ci réew mi ah. gis naa ne ñu ngi social ñu ngi ñu ngi tabax. ñoom ñëpp. waaw alaaj pap ay nit ñu baax lañ. wallaahi waaye ñun yàlla dañoo boole koo xam ni. Mm-hmm. day sunu patron. mooy daj dëpp gi de. maa ngi wax léegi Pape sàmba mi doon réaliser sa émission bi nga doon def. Mm-hmm. Grand Bal. Grand euh, Bal journal uh-huh. may tooñ Pape Samba ma ni ko yàlla xamul mayantu. déedéet. su la mayee rek may na la. Mm. ma ni ko xoolal Youssou Ndour mhm. communication bi mu am ci lu may def. Ah. kenn amu ko. déedéet. ma ne ko journal Grand Bal mooy lan. ah dafa ànd ak kàngam yi nag xam nga animateur bu mel ni man <laughs> bu fàtte yooyu yooyu yëpp bu ko fàtte <laughs> bu fàtte ki taxani woon <laughs> dëgg dëgg nag man it mbir laa ci. ma ni mais journal Grand Bal ku koy firi mooy lan. kenn day man Youssou am na xaalis bi am naa xel. mais <laughs> euh, tey ñoo commencé waxtaan wi. <laughs> mais dina ko annoncé une semaine avant wala dix jour avant nga toog ci sa salle di xaal journal jàpp ni Pape Cheikh Diallo. Ah. xew-xew réew mi lay indi. <laughs> ndekk yow journal xaw yàlla la. kii su ma ko toppee du ñu tàmbali waxtaan bi te vraiment li ñu dajale tey ci guddi gi euh, dafa bokk li may ndamoo fan yii yëpp nee nañu fëgg dënn baaxul mais damay fier ci su ma gisee xale yi nga xam ne daawuñu déglu waxtaanu diine xale yi nga xam ne daawuñu déglu waaraate comme on l'appelle xale yi nga xam ne daawuñu déglu siira waaye léegi xale yi kenn gënu leen bëgg euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu nag ñun euh, joué nañ ci rôle bu am solo donc ginnaaw bi ñu leen ndokkeelee ba pare nag teraanga yaa ngi tey comme alxames bële or yi génn nañu salon yi génn nañu téléphone portable yi génn nañu enveloppe d'argent yi génn nañu maanaam lu waxtaan wi neex neex tàmbali leen di composer benn ci suñu ay numéro de téléphone nga xam ni à tout moment soit mademoiselle cadeau ci ginnaaw daf leen di may waaye bu ngeen ma jotee en direct itam dafay gën dàqati ku dugg euh, dama koy tàmbalee di may enveloppe yu duun yoo xamante ni moom ngeen di duggee seen 2024 donc mille euh, bëgg naa ko maye léegi nii mille bëgg naa ko maye léegi nii ba presque mille bata balaa guddi gee jeex euh, ci seen i woote dama leen di may rek ngeen dugg si bu ko defee ku dugg rek ñu xool lu ñu lay teralee am naa fi euh, ay parure or yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee euh, bijouterie la solution aji caam ñu ngi koy ndokkeel bu baax euh, ñoom ñu ngi nekk Sacré Cœur 3 côté boulangerie jaune dañoo taxawal nag slogan boo xam ne mu ngi tudd une femme une boîte en or mën nga fa def dépôt pour aider képp koo xamante ni góor la wala jigéen bu ko defee mu am ci produit yi nga xamante ni bijouterie la solution moo koy jaay dañuy jaay ba jaay ay jamaa xam naa jamaa yi nga xamante ni Ami Dieng euh, madame Diallo nekk New York Euh, chéri Amadou bu Delta yaayu Sofia ak euh, Dadi nga xam ne dafa bëgg jama euh, boo ko soxlatee jarul nga koy jëndee Amérique ñëwal fii bijouterie la solution Sacré-Cœur 3 la nekk côté boulangerie jaune daanaka sorewul ak Fademba Diop la Linguère Fademba ñu ngi koy ndokkeel bu baax donc foofu bu ngeen fa demee di ngeen xam njëriñu bijouterie la solution seen numéro de téléphone di 77 554 58 62 wala 78 wala

quinze pro max ak xaw ma ñaata giga giga bi ma soxla ci téléphone bii la ne te man mënu koo am donc yéen ñiy woote bu ci euh, sa wërsëg nekkee léegi nii mën nañu leen ko may donc cadeau fin d'année ak cadeau nouvel am nañ fi itam. ay yeneen i mbir yoo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu électroménager ñoo ngi ko jëlee Kabirex alors Kabirex nag lu waay wax ci moom rek euh, da ngay xam ni boo demee ci seen i showroom di nga fa découvrir daanaka variété gamme produit allant de téléphone portable haut de gamme euh, des machines à laver des micro-ondes ay réfrigérateurs side by side ay climatiseurs ay blenders ay caméras de surveillance Kabirex en tout cas am na ay variété téléviseurs yu mucc ayib ba noppi itam dañoo nekk euh, promo fii ba kan bi di jeex xam ngeen ni Coupe d'Afrique ñëw na na et que <laughs> Oustaz Modou daa fas yéene daa fas yéene dem Côte d'Ivoire nee na pour ñu def famille di plus moom saa yu dëkk amee xew-xew il faut que mu créer famille di plus ni la fi defoon Bercy ba coow li topp ko léegi nag nee na ren ci Coupe d'Afrique bii am Côte d'Ivoire daa bëgg ñu ànd dem bu joueur yi footballé ba ajjuma wala guddi ajjuma ñu defal leen midi plus. incha allah ma ne ko incha allah naa ci waxtaan ak Bouba Ndour. léegi nag loolu euh, kan bi euh, Kabirex si daf ci def promo bu am solo ak les grandes marques comme LG Samsung pour ne citer que yooyu mën ngeen dem ci site internet bu LG astafurlah pas bu LG bu Kabirex di www.kabirex.com wala ngeen woote seen service commercial di 77 800 00 30 Kabirex am na Sacré-Cœur 3 rond-point boulangerie jaune côté Auchan Kabirex am na Kaolack Kaolack côté station Baba Guèye euh, Kabirex am na fii euh, Kër Massar euh, côté Sédima ngeen baal ma de damaa bëgg lim partenaire yëpp en même temps ma leen di jël ci téléphone yi léegi nii ñu doog a tàmbali point bu njëkk bi ak Oustaz Mout Fall 88 628 22 22 mën naa maye léegi 150 000 ci tàng-tàng bi ak yeneen enveloppe yoo xam ne lu may gën di dem rek ça dépendra ci samay rab mën naa joxe 200 000 mille 000 400 000 donc gaaw leen ci woote yi mën nañoo maye itam benn parure or maye salon boo xamante ni euh, ñoo ngi ko jëlee Ombelico meuble ombelikoo nag euh, boo ko déggee sa xel dem ci Adja Chéri Mika ñoom bu dee sañse ñoo fi number one waaye nag depuis un moment foofu ca Ombelico dañ faa ibbi showroom boo xamante ni Ombelico meuble la tudd gis ngeen chambre à coucher bi dañu koy mayee coiffeuse beeg lal beeg matelas bi mu àndal ak tapis beeg accessoires yi on vous offre ça ça a beaucoup de qualité ñoo ngi ko jëlee euh, Embellico meuble euh, plus salon bi nga xamante ni teg nañu ko donc yéen ñi bëgg ay meuble yéen ñi bëgg a changé waat seen décoration kër mën ngeen dem Embellico meuble en face stade Demba Diop seen numéro de téléphone di 77 519 18 04 wala 77 762 37 47 ban téléspectateur mooy dugg léegi ñu jox ko wàllam ci enveloppe yu ñuy séddale 88 628 65 65 mën naa maye léegi 200000 wala 150000 comme mën naa maye léegi nii iPhone bi nga xamee ni 15 Pro Max la ay ca gaaw gaaw leen ngeen dugg si balaa gën a guddi tey du ñu mën a xaabaabal puisque léegi du gàtt nañu ci euh, non vacances voilà vacance yeeg fin d'année bi jeex na donc nii nii nii maa ngi leen di xaar 88 628. 22 22 ban téléspectateur mooy njëkk a dugg tay ñu euh, jox ko ci enveloppe yi ñuy séddale mën naa maye tamit euh, Samsung bii euh, Fold cinq la bii bu baax bi la mën naa maye itam téléviseur smart ñoo ngi ko jëlee Kabirex comme mun nga woote léegi nii ñu may la parure or wala 200000 man 100000 sax su ma ko amee jël ndax jamono dafa naqari waaye heureusement ba. ku dugg léegi dinañu ko teral donc pendant que téléspectateurs yi di dugg si Euh, euh, Pape Samba ñu dem ci point bu njëkk bi ak Oustaz Modou Fall tey brodé la laal Oustaz Oustaz tey pire xëla indi ne yaa ngi mel ni géwél yooyu di taxaw géew Ismaïla Mbaye rek nga ma dox wala Medoune Fall non xaw xaw nga ma jox tuuti Alsaan mbay sax <laughs> mooy baawu griyo yooyu ta def seen grand mbubu taxaw naan mbooloo mi <laughs> ragalul brodé la maye tey <laughs> ba sala jàpp la rek comme yow léegi dematoo butiku sala da ngay dem ci yeneen yeneen vendeur amul problème yàlla waxul kenn dara yàlla waxul kenn dara <laughs> oustaz brodé la laal teg ci ay raay ban raay band xaw ma raay band ñoom Pape Samba Thiam ñu naan raay band jox ma sama raay band yi on ne dit pas raay band quand même prononcez les noms des marques comme il faut n'est-ce pas allez ban téléspectateur mooy dugg léegi nii ma teral ko enveloppe yaa ngi tàmbalee daanaka cinquante mille jëm cinq cent mille mën naa nekk c'est de l'argent qu'on vous offre c'est cadeau teguma ci benn condition il suffit juste ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi affiché wu ci euh, suufu euh, écran bi yaa Oustaz mhm. Euh, damay dégg souvent ñu naan yowmal xiyaam yowmal xiyaam xam nga keroog wax nañ ci àjjana. Mhm. wax nañu ci at bu bees bi ak noo ci duggee mais tey dama bëgg ñu ñëw ci point bu important boo xam ne toujours ci débat yi xam nga ñun sénégalais yi souvent kenn ku nekk day foog ni moo ëpp sa morom xam-xam. Mhm. Pape Samba bu toogee daf may jaay maanaam man non àdduna jeex na de man damaa jàpp ni jeexagul nag <laughs> tey laa gën a engagé pour vivre mais classe Pape Samba gi ah yowmal xiyaam <laughs> màndarga yii ma gis ñii ci jamono lii mooy firnde ni ñu ngi yow ma xiyaam <laughs> léegi nag man dama bëgg a comprendre ndax am na ay mandarga yuy wane ni yegg si nañu daanaka yow mal xiyaam wala dañuy jékki-jékki rek moom yow mal xiyaam ñëw lii laa bëgg a comprendre. <laughs> jërëjëf Alaaji Pape ci laaj bu am solo bi nga laaj d'abord yowmal xiyaam balaa taxaw mhm. fokk àddina tukki. Mhm. te àddina dafa am bis bu muy tukki àddina dafa am bis boo xam ne ci lay tukki bis boo xamante ne ci lay tukki maanaam yowmal xiyaam mënta jot te àddina tukkiwul mais li ma jaaxal mooy yowmun mooy bis waaw xiyaamun mooy taxawaay ba mooy taxawaay ba waaw ok yowmal xiyaam mooy firi bisu taxawaay ba ah, mooy benn bis bi yow mun yow mun ak yow mun taxawaay. maanaam yow mu. waaw mooy firi bis. waaw alxiyaamati mooy taxawaay ba. kon lu ñu toog. déedéet. loolu naa taxaw moom moom it bakka ak tamit taxaw yow li ñuy taxaw ci grand bal bi rek doyul rangu Youssou Ndour bi doyul nu rek <laughs> parce que da taxaw ba toqi kon yow mal xiyaam dañuy taxaw. xam nga taxawaay bële ñaata temps la. déedéet. miqdaaruhu xamsiina alfa sana te li ci gën a yéeme benn jour yowmal xiyaam. muy junni atu senegal ah ñu nar ko taxaw waaw kon lu waral yow yowmul yowmul xisaab ji. yowmul xisaab mooy bis bi ñuy àtte. ah yowmal xiyaam dafa bari ay tur. bis bi ñuy taxaw. mooy bisu taxawaay ba. bisu bis mooy ñuy àtte mooy bisu réglé ba bisu àtte ba. Ah, d'accord bu la neexee tuddee ko bis bi bisu àtte ba. xiyaamun. ak xisaab. ok ok bu la neexee ni yowmal qiyaam muy bisu taxawaay ba. waaw ñi ñi seen i tànk di ruux nag xanaa mën nañoo yóbbaale six de temps en temps lu toog surtout mag ñi. sama ñoom yaay nga xam ne bu ñuy jóg dañ naan way way way way way way way way way way ma ne way way way nii mu ne ma mag laa amul toog yowmal qiyaam. léegi nag pap yowmal xiyaam moomu pour ñu agsi ci. fokk yàlla tukkal àddina. nu koy tukkalee. te yàlla wax nanu bis bi muy tukkal àddina. yoo xam nga ko. bisu vendredi lay doon. àdduna mmh. du tukki lëndi. ah bon. li fekk yaa ngi xëy ne ci lëndi jàppal ni àdduna du tukki. àddina du tukki talaata. àdduna du tukki àllarba. maanaam jouru jàkkaarloo la àdduna du tukki kon ñoom à tout moment <laughs> tukki tukki àdduna mën na leen fekk en plein direct <laughs> kon ngeen xam ne bu baa mën a waxtaan bu baa mën a baab. jamono yi birima di wax ba yuux dina mais boobu booba dina wax ak yàlla ba yàlla puus ba yàlla bëtal mais bu tombee wax nga dëgg de birima di expliqué. jamono yi birima di yuuxu ci la yàlla tukaraat wax nga dëgg de jour yi jàkkaarloo de. donc yeneen jour yi amul ngaañ. déedéet ok. jàppal ni heure boo. bis boo song ci semaine bi du bis bi àddinay tukki. Mhm. waaye jàppal ni Pape bis boo songee vendredi. jàppal ni bis boobu la yàllay tukkal àddinaam. te Pape dinaa la wax ni yàlla buy tukkal àddinaam du ko tukkal 6 heures du matin. ban la. du ko. <laughs> yàlla ba yàlla ba fekk ci lu dagan rek. du ko du ko tukkal 7 heures. 8 ah. heures àddina du tukki. ban la 9 heures àddina du tukki. 10 heures àddina du tukki. onze heures ci bëccëg àddina du tukki. ah lay tukki yàlla nee na su may tukkal àddina maa ngi koy def diggante quatorze heures ak quinze heures. oh day fekk ñu añ ba pare di sieste. heure boobu la yàlla tukkil àddina fekk ñëpp dee nañ. oh. tiit de. dernier arrivage bi ñoo fiy des. yàlla yónni malakul mawti ni ko xoolal àddina ña fa des nga rey leen parce que tey la àddina war a jeex dernier jour du monde tey la malakul mawti xool ñi fi des mooy rey kenn par kenn moom malakul mawti ñëw ci yàlla ni ko mission accomplie rey naa ñépp moom mawti yàlla ni ko am na ku des mu ne ko ku des ne ko sama PM premier ministre mais moom mawti tëbul étape noonu. déedéet xam nga kan lay mujjee rey. PM. kan mooy. PM PM premier ministre waaw mooy Jibril. Umaru kii nga dégg ni candidat la. PM bi. waaw moo tax ngay neexal baatu titre bi mu am ni pour bu faloo mu wóolu la dañ koy rey di ah <laughs> ok dama gis ngay neexal que naan ah, xam nga lan mooy PM. mais dañ koy rey parce que ah, Amadou Ba PM lay. dañ koy rey neexal te candidat la ngay neexal nii pour bu toogee woolu la. day waaj a dee moom laa lay leen. ah ok kon nettalil waaw nettalil nettalil nettalil waaw <laughs> mais d'abord balaa ngay ñëw foofu ci kan mooy euh, ci PM bi ci premier ministre bi nan nan nan la yàlla di tukkalee àddina. sunu borom nee na Pape su may tukkal àddina damay lem suuf si comme basang. Eh, daf ñu fekk ci kaw. kala isa dukkatil ardu dakkan dakkan. ah kon de kenn du dukkat di daw <laughs> amul dukkat yàlla bu xasee ba lem amul dukkat doo dukkat doo dakkat dakkat. dégg nga wax wa jaa rabbuka wal malaku safan safan. dukkat dukkat. <laughs> allahu akbar. Eh. pap yàlla nee na ni ngay gisee basak ñu koy lem nee na su may tukkal àddina bi suuf si noonu lañ koy lemee. non c'est pas vrai oustaz. si. yaa ngi dégg. Uh-huh. borom nee na malakul mawti day topp nit ñi bare ñépp mais wax foofu ba ma dégg ci dukkat dukkat loolu dafa neex. dakkan dakkan. mooy bu yàlla lemee suuf si. mais waxaat ko jaaraatil ci wax. kalla ida dukkatil ardu dakkan dakkan. Oh! wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan allahu akbar alaaji pap sunu borom nee na ma leen suuf si ba mu dëgër laaj malakul mawti ni ko kana des ci kaw suuf mu ni ma rey naa ñépp te malakul mawti pap buy rocci ruu du am yërmande mooy tukkal gi muy tukkal àddina waaw mais man li ma jaaxal ci li nga wax léegi nii safara la ci teg ah waaw yàlla dukkat dukkat waaw safan safan waaw tegu ci safara. mooy wa jii a bàyyi leen saar yi ngeen di dagg ak ay ay hadis yi leen toj yax yi <laughs> parce que man damay comaytu rek diggante Pape Ad Modou Fall Assane Seck euh, euh, fu ne ma cof fa dara rek finalement man bu ma leen toppee damay dof mais il nga nga nga àggali safara gi mu ci teg moom yàlla. yàlla sunu borom daf ci teg ni ah. su ma tukkalee àddina ci façon bii ma koy defee. bu lemee bu ko lemee comme basan. képp koo xam ne daawoo ma jaamu nag ma yóbbu la sawaraw jahannama. na hmm. ma nga wax ne. waaw. Ah. ñu taxaw nag ci kanamu yàlla di saalit naan ko yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati ñan ñooy wax loolu ñun déedéet mooy ñi nga xam ne jaamuwuñu woon yàlla ah. dañuy réccu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal xam nga pap façon réccu yi nit di def yowmal xiyaam aji texe ji woote leen ma may leen ci <laughs> ku ma jot texe nga tey ku ma woo rek texe nga ndax texe weesuwul allo may naa la deux cent mille allo may naa la trois cent mille allo may naa la quatre cent mille donc aji texe ji woote leen bu leen neexee ngeen ñu wala ngeen jël euh, euh, ci ginnaaw puisque en direct wala ñàkk en direct bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro de téléphone yi on vous offre directement de l'argent fi ba keroog ñuy jeexal euh, jotaay bi donc aji texe ji <laughs> <laughs> woote leen yaa oustaz yàlla daf ñoo nettali ci alquran mhm. façon rëccu yi nit ñi di rëccu ëllëg dëgg la de dafay wees yàlla nee na yowmal xiyaam mhm. xarit yi ngeen amoon ci àddina mhm. ku ci nekk di nga am sa turu xarit boo cité ci kanamu yàlla ne yàlla bu démb doon tey sama xarit bii du ma ànd ak moom Pape Samba Thiam ñëpp Eh. ñun ñëpp yàlla nee na ku ci nekk di nga am ci sa xarit yi koo tudd turam. ci kanamu yàlla. xanaa kooku daf lay def lu garaaw ci publiquement hmm? na yàlla ak neexoon ci àddina kii duma ko xam. xam nga nu ko waxee. Hmm. yaa laytanii lam attaxis fulaanan xaliila hmm? yàlla nee na yowmal xiyaam di nga gis ku taxaw ne yàlla ak neexoon ma bañ a jàpp diw mii muy sama xarit. ay waay cité turam. pour lan loolu oustaz xanaa kooku. parce que day doon xarit boo xam ne daf lay sànq àndalu gu ànd àndul woon ak ah, yow àndu yàlla. waaw waaw waaw waaw. bari na ñaawteef yoo dugg moo la ci. moo ci dugal dëgg la dëgg la. njombe woo dugg moo la ci dugal. dëgg la dëgg la. léegi nag ku mel noonu yowmal xiyaam su la yàlla tegalee say kaset nga gis ni yi nga def yépp ci ay ñaawteef kii loxoom mi ngi ci. ñala daan jay pour nga def ñaawteef bii moom daf ci bokk. Mhm. da ngay yuuxu yàlla ni ko yàlla yi te nii lam attaqis fulaanan qaliila mais man boobu jaaxaluma bi ma jaaxal mooy bi ma jàng ci yéen ni euh, ginnaaw fooy toll papa day daw doom doo dam doo dam doom daw yaay mooy yow dawante boobu man moo ma gën a tiital sax mooy que tudd xarit ne bu ma xamoon du ma ànd ak moom àddina mooy mooy mooy yow ma ya firrul mar'u mar'u doy na waar de man daf ma tiital sama yaay ak ni ma ko bëggee mu war sama yaay seexa la may woowee ñu war a tase rek sama yaay war ma wax seexa ma ne ko yii tàllalal tàllalal yow da xaar te li ma ci gra li ma ci jaaxal mooy yaay la njëkk a tudd ci saar bi ma bëgg nga nga développé. yow ma mar mar'u ak axiihi loolu mooy. yàlla nee na. yowmal xiyaam nit dana gis nit responsabilité. mu ragal koo teg kooka ba kooka daw moom itam mu daw wa ummihi sa yaay da daw waaw nga fay daw ko wax wa abihi daw sa baay sa baay di la daw mbay tàll la àllaaxira <laughs> dina neex de ku yebu jaamu yàlla rek mbay rombal su boobaa nag dinaa ko li ma ko mënee. parce que foofu faaf li tax ñuy dawante. Ah. mooy ku nekk da ngay tiit ba jàpp ni boo dajeeg sa papa sax mën na fay nekk di la tegal ay problème naan la tey nga maa dimbaleeg waxal ak yii dam ku ne sa bopp ngay tal. dëgg amul benn sëriñ buy gis sa taalibe yowmal xiyaam nangoo jël sa responsabilité ci kanamu yàlla ci kanamam. ak foor kenn du nangoo taxaw ak kenn. suñ la laajee bis bi kenn nanguwul a xam kenn neel mooy yowmal xiyaam yowmal Ah, wa ah, ummihi wa ah, abihi waaw da nga wax bi yaay kullu mri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi mhm. yàlla nee na ku ne da am lu la doy ba kenn talu la daje kenn mhm. léegi nag pap avant yawmal xiyaam mhm. jibril mooy des ci àddina di dund malakul mawti sunu borom ñoom ñett kese waaw waaw lu xew parce que Jibril malakul mawti dafa rey ñëpp. Ah. Jibril dafa am responsabilité bu rëy. Mm. parce que mooy premier ministre suñu borom. mooy PM bi waaw mooy PM bi moom ah. jàpp na ni. kenn waru koo rey. Mm. malakul mawti ñëw ci yàlla ni mission accomplie yàlla ne ko mm. am na ñu fi des mu ne ko ku des mu ne ko deewagoo. waaw ah, moom Jibril. moom malakul mawti. waaw moom mawti. mu ne ko Jibril mii di sama premier ministre rayagoo ko. xanaa mawti day xaru moom. mawti. waaw <laughs> bëgg xam lan moo kii reyee lu koy rey. bu bu reyee boppam xaru na moom. yaa ngi dégg. ala kulli yàlla lool fa tabaarakallaahu moom moom bu dee moo rey boppam rek ça veut dire dafa xaru te mooy mujjee dee parce que moom moo ñuy rey si. yàlla ni ko demal nga rey Jibril pam Pape li lay wan ne Jibril am pouvoir. téere yi nee nañ Jibril su ruugi rocceekoo ci moom maanaam su faatoo dafay mel ni montagne lañu daaneel ci àddina bi. ndax bruit bi muy def su doon dañuy dund tey Pape bu doon dañuy dund tey. Mhm. danga naan am na lu xew tremblement de terre am na. Mhm. parce que bruit bi muy àndal moom Jibril bu faatoo. Mhm. moom Jibril. su faatoo te mawti moo koy rey. bu bu ko mawti reyee. waaw ah. moom Jibril deewam. Ah. dafay ànd ak bruit. waaye day fekk ñu dee du ñu waaw. waaw ah, garaawul parce que bruit bi li muy wane mooy ki faatu du ko ndaw. coolul. xam nga bu doon lu ñuy fekkee mën na maa mais comme daf ñuy lem moom nee na ba pare bu ñu lemee ba tegee ñu ne ci la ci la ci la briwu deewu jibril di xam nga am na ñoo xam ni coolul quoi am na xam ni coolul fis am <laughs> am na ñoo xam ni seen dee eh? day def effet dëgg la Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh hmm? borom 40 ans mois 6 jours zéro faute lalaay zéro faute ki ne ki ne ci xolu waa Sénégal alaaji Abdou maamu Seydi Jamil bi mu génnee àddina jamono daf koo jooy. maamu soxna mu xayri si baax. yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi mu génnee àddina jamono daf koo jooy. Mhm. sëriñ Rama Sumaare buur ngalam. Jibril moomu nag bi mu génnee àddina jamono daf ko jooy. Mhm. alaaji Pape Malakul Mawti suñu boroom a koy rey. Hmm. léegi nag yàlla su ko reyee ba pare moom yàlla ba ñëpp faatu. Mhm. mais moom mais moom avant ñu koy rey moom moom moom Mawti. waaw lan la wax. man manil mulkil yawma loolu yàllaa koy wax yàllaa koy wax yàlla mooy wax loolu ana sama kan mooy sama borom wala ana sama borom yàlla mooy jéggat bàmmeel yi ah, yàlla mooy reyee ba pare waaw taxaw ne li manil mulkil yawma non nga man maa ngi réer waaw loolu dafa neex daf ñëw rey ba pare yàlla déet avant muy wax loolu am na muy njëkk a def manil mulkil yawma <laughs> manil Oh! loolu yàlla na ma dekki rek pour dund ko ndax bu nu bërëngee ba pare ba ñëpp dee day taxaw moom yàlla naan anil mulkil yow c'est quoi ça. waaw. pap yàlla su reyee ñëpp. allahu akbar. balaa wax baat boobu rek. pour mm. wan nit ñi ni amoo leen kàttan man maa am kàttan. wallaahi dafay taw. Mm-hmm. lu ëpp ñaar fukki at. moo mën mu ëpp doole. ci kaw bàmbeel yi. waaw def li ngay def pare ni maa mën ma. xoolal taw bu dul sébét. <laughs> ala gën a mag pap xoolal <laughs> taw bu dul sébét. allahu akbar. la yàllay taw ci kaw bàmmeel yi. Mm. ñëpp ngi ci bàmmeel yi. Mm. sëriñ bi nga gënoon a yaakaar mi ngi ci bàmmeelam tëdd. ah bàyyi sama sëriñ de gëm naa leen doy nanu ma te dina ma dinaa giseek ñoom wax leneen <laughs> ma daa parti ma ñun mulkil yow ma bu yàlla daal neex na ma man ma ñun mulkil. pap ministre yi nga yaakaar ci àddina ñu am ay ndombal tànk. yaakaar ma ci benn nag heureusement loolu la yàlla dogal benn. président yi nga yaakaar. gabonais bu mel ni man waa immigré ci senegal président Gabon ba la yaakaar Ali Bongo Ondimba wala du moom je sais plus. Pape ñoom ñëpp. ñu ngi ci bàmmeel yi tëdd. allahu akbar ku amoon cër ci àddina mbaa nga am ndombal tànk. cër du dara. yàlla dina taw ci sa bàmmeel bi pendant ñaar fukki at ak lu teg. Ah. taw bi di taw ci sa kaw mënoo jug. bu taw bi sebetee ba mu xam ni nit yënguwul moom yàlla. Uh-huh. mu jug nag di doxantu ci bàmmeel yi di wax benn baat. dafa Musdalifa we xam nga lu muy wax. Uh-huh. limanil mulkul yawm oh. question lay posé ana tey kan mooy buur. Ah, li ma nil mulkul yow mu ana tey ku am kàttan na jug wax ak man. boo koy posé nag ma koy tontu. li ma nil mulkul yow mu. boo koy posé ma koy tontu. ana yéen ñi daan fëgg seen dënn jàpp ni affaire bi yéen la ana ngeen. alaaji pap yàlla dana ko wax lu yàgg kenn tontuwu ko. man mën naa koo tontu de. mu tontu boppam. waaw lu mu wax dama fëgg dënnam. lillaahi. lillaahi waaxidil qahar wallaahi. wallaahi xam ngeen ni man yàlla maa am kàttan de. tooñ yi ngeen ma tooñ ci àddina may muñ. wallaahi musuma réagir. wallaahi. ngeen dëkke ay bàkkaar may muñ. Mm-hmm. musuma réagir. tey. ma jox leen sama teraanga ngeen bàyyi ma fi sant keneen. Mm-hmm. musuma réagir. ma santaane sama jàkk yi ci kaw suuf ñu koy tabax jàkk yi di vide. Mm-hmm. soirée yi di fees. Pape Diouf su na lu neex bërki démb rakk jéem a ko wax ami maami <laughs> jàkk yi di vidd hmm? soirée yi di fees hmm, hmm, yàlla wax lima lima lim ba tey yoo xam ni moo ko moomal boppam te nit ñi joxuñu ko ci gëddaam ñu bañ rek mu ne waaye xam ngeen ni lillahi alwaahidi alqahar man yàlla maa am kàttan waaye nag lu waay liggéeyoon da nga ko fayeeku ma yawma tujza kullu nafsin bima kasabat allahu la zulma al yawm sunu borom nee na tey laay fay kenn par kenn ku ne li nga liggéey ngay fayeeku li ma lay fay du ëpp du yées mhm. tey daal laa zulmal yow mu tooñ amul du ma tooñ kenn te man yaxmal ah te nag tey jii fa man yaamal misqaala zarratin wallaahi oh, nag wa man yaamal misqaala charratin charran <laughs> yarahu yàlla yaa mën yaa ëpp doole <laughs> ah, pap yàlla ku ko yeb yowmal xiyaam daa jotagul moo mën moo ëpp doole wallaahi pap sunu boroom taxaw nii mhm. lu waay liggéeyoon da nga ko fi fekk tey la bisu layoo bi aji texe ji yéen laay xaar woote leen ma jox leen seetaan TFM ci texe la bokk seetaan Pape Cheikh Diallo moo dafa at ci texe la bokk woote jot ma en direct ma may la deux cent mille léegi texe weesuwul loolu fi mu ne saas bi mi ngi wax ay waxam rek <laughs> waaye yow mal xibaar xiyaam ñëwagul nanu gérer rek ba ca kanam Dieu miséricordieux yërmande moom foo ko natt weesu na ko waaye moom mooy allahu allahu googu nag mooy tontu bi ca keroog taxawaay ba di bis boo xam ni daal daanaka euh, du jékki rek ñëw. déedéet. Mhm. alaaji pap bi yowmal xiyaam nag. bu saas bi di daaneel rek ma leen di jël ci téléphone bi. alaaji yow mhm. yowmal xiyaam nag. di mhm. bis boo xam ni. sunu boroom képp kottu dong mooy moo fay wax. moo am kàddu mooy bisam. yow jàng nga ci ayatul kursi yu yàlla wax ni man zalladi yashfau indahu illa bi iznihi yàlla nee na yow mal xiyaam ku ma rek ku ma niwul vous avez la parole doo wax ci ndigalam rek Macky de mu ngi koy fàttali ministre mi bërki dem naan leen da ngeen di xaar ma ne la séance est levée <laughs> bu neex a ngi dem <laughs> mais yàlla moom nee na ci ndigalam rek yàllaa ko wax. Hmm, ci ndigalam rek. nee na yowmal qiyaam. pour nga jël kaddu. il faut man yàlla maa la naan vous avez la parole. Hmm. kaddu gaa ngoog bismillah. ci ndigalam rek. nga tàmbalee wax. Hmm. waaye pap ku dul yàlla yowmal qiyaam yàlla dani kenn du ramb yowmal qiyaam ku dul ci ndigalam. lu dul yàlla neen la dégg naa bongo maa ni ci ko wax. man zal lazi yashfau indahu illa bi iznihi ah. kenn du ramb yowmal qiyaam ku dul ku yàlla jox ni am nga autorisation wu ramb tegal foofu sa baaraam kon ramb am na ankay ndax man toog naa dégg ay borom xam-xam ci internet ak affaire yooyu ñoom ni ñuy expliquer day mel ni ram mu amul. après ma faram fàcceel la ko. yaay ndaanaan nag yow xanaa ko doon jàng télévision bi nga nekk Italie parce que yow dog ma da nga dem ba may jox oustaz mais jox nga ma journaliste. li jàng nga ko ah nekk ko foon marchand rek di jaay ay fals ci <laughs> arabe suba la vendredi bu sama sago journal grand bal bi version arabe bi yaa koy def suba mais bon doo ko mus a def yàlla waxul kenn dara léegi ñu jël leen kon rammu am na parti boobu nag laa bëgg oustaz développé ñu ko tuuti et ñu ngi xaar seen ay question euh, ak euh, Kia qui est en train de de ak hashtag bii di euh, midi plus donc ñu jël téléspectateurs yi dañu ko enchaîner mu bëri comme ça ñu teral ñu bëri allo. kooku. soxna jaara soxna jaara Bousso. waaw ah yow day kontaan naa ci woote bi ki njëkk a woote soxna jaara Bousso. soxna jaara soxna jaara na nga def. sant bu baax a baax. yaa ngi wootee fan soxna jaara Parcelles Assainies. fan ci parcelle Assainies. unité 2. unité de duma la téye lu yàgg yow dama lay teel a dama lay teel a teral comme ci aji texe ji nga bokk. nga am sa enveloppe bu ne duun sa tur bokk ci tirage dimanche bi mën naa laa may parure or mën naa laa may salon mën naa laa may téléphone portable wala chambre à coucher. allah donc soxna jaara waaw léegi du ma la du ma la téye lu yàgg j'attends juste ci ginnaaw ñu wax ma euh, montant bi ma lay yónnee léegi nii mbaat dangaa banque moo tax nga woote soxna jaara waaw banque naa de moom. wallaay jamono neexul xaar ma yónnee la benn cent cinquante mille rek fanweeri junni yoo yoo fanaanoo. Ah, baax na. baax na kay aka a baax. <laughs> fanweeri junni kay weesu na baax. may ma ma yónnee la ko léegi sa téléphone portable dégg nga. incha allah voilà tur ma neex mais bul raccroché léegi su ma la ko yónnee comme ça nga jot message bi ci sa téléphone portable euh, ñu topp ci soxna jaara itam nañ leen jël ku dugg rek ñu jox ko cent cinquante mille addiya la ak euh, lu nu leen di dimbalee. ngeen fanaanoo ko tey ci euh, guddi gi ci télévision Futur Média na woote yi gaaw nag voilà jaara xoolal sa téléphone yónnee naa la cent cinquante mille fanweeri junni léegi nii. waa ñëw na. vérifier ñëw na léegi nii liiral message bi ma xool. cent cinquante mille baax na di. de waaw waaw. déggal loolu TFM rek a mën li léegi nii ci tàng tàng bi minuit moins nga woote banque ñaata nga yoroon sa poset ah man kay fëm ne zéro franc. ah yàlla baax na léegi cent cinquante mille ngay fanaanoo ñaanal ñu ñu ngi lay gërëm. waaw ah, moom koy yokk ca kaw rek. allahumma amin allahumma amin. dëgg yàlla jërëjëf jërëjëf. jërëjëf soxna Diarra ñu jëlaat ki ci topp 88 628 vingt deux numéro téléphone yi miin ngeen ko dama koy répété rek waaye xam naa ku ci gis numéro rek bu affiché wu ci suuf écran bi allo nga woote allo allo 150 000 la ñu jox soxna Diarra allo. allo allo allo Pape bàyyi ma noonu rek ci allo bi tey dama bëgg a joxe ay enveloppe bi enveloppe ba keroog may tàggatoo ak yéen voilà bàyyi ma ci noonu rek allo allo xam naa numéro yi day saturé bu ngeen composé benn bu dee dafa mel ni lu saturé da ngeen di raccroché composé waat ma mayewaat beneen euh, enveloppe cent cinquante mille wala deux cent mille ça dépend ci samay rab. maa ëpp ñëpp rab chaque jour ak ni may mel cent cinquante mille deux cent mille cent mille damaa bëgg a euh, waxtaan ak <coughs> oustaz Mout Fall mais may waxtaan ak oustaz sax mën ngeen woote xam naa yenn saa yi da ngeen di foog nii bu ma dee waxtaan du ma bëgg dagg waxtaan waaye xam ngeen ni man dara safu ma de <coughs> oustaz bi ne ci plein conférence ma dagg ko dugal samay keneen de sel loolu du dara ci man balaa ñuy ñëw ci sujet bu am solo rammu ndax dama cee dégg ay affaire yoo xamante ni comprendre ma ko. dégg ci yowmal xiyaam ak taxawaayu suñu borom ustaas ne rammu hmm. donc ça veut dire que mu am na te man dama foogoon ni amul hmm. mais balaay boobu nañ jël téléspectateur allo allo Mariem Blondin Blondin ñu ngi lay ziar bu baax xaritu Saas Mod Fall ñu ngi nuyu waa Expresso merci ah nuyul ma suma suma jigéen bi nga xam ne moom la ñu dénk euh, moom la ñu dénk Expresso très adorable ak euh, famille Expresso yëpp Fatim Niang ah euh, maam soxna Gaydel dama fa bëri ay jigéen allez 88 628 22 22 mën naa waat léegi nii 150 000 wala 200 000 et puis ku ma may xaalis dangay ngay bokk ci tirage u dimanche bi voilà dimanche après midi incha allah ci lay amal grand maye bi allo allo allo je rappelle que bu ngeen composé da ngeen di euh, gis ni mën na sature ngeen raccroché peut-être composé waat euh, soit le même numéro Pape Samba vérifiel ma gaaw ay waay sama montre jamaa bi toj na waay oh cat nag baaxul man gisuma woon lii oh, te jamaa bee génn tey waaye jamaa bi toj na waay <laughs> te kat jamaa dañ koy dégg ngandal ko jamaa cent cent cinquante mille sax am na <laughs> aji caam boo fa demee maanaam nu sa poste toll mën nga am or wala jamaa allo ay waay gaaw leen yéen tamit waxtaan bi dafa am solo 88 628 628 lan 628 22 22 boobu itam numéro bu baax bi la 88 676 07 07 waaw mu nekk ci suuf noonu allo allo allo kon léegi ma may leen le temps ngeen dugg si parce que bu ma leen toppee itam mën naa perte temps bu bëri pendant que may wax ak Oustaz Modou Fall mën ngeen a woote ci numéro de téléphone yi Mame Fagay Ba costumière très appréciée ca dëkk bu ñu naan Saint-Louis ñu ngi koy ziar bu baax. di nuyu tamit euh, Debbo Diop Debbo yaayu baay Seex Debbo Diop ñu ngi lay ziar bu baax yàlla na yàlla na yàlla fay la taxawaay bi Serigne Modou Guissé tamit ñu ngi koy ndokkeel 88 628 22 22 et puis waa Cappacooli Cappacooli nag restaurant la bu nekk 18e Fat Fall Balago boo fa duggee nuyul ma ña fa nekk ñëpp di ceeb di ceebal sénégalais yi nekk foofu ca Paris waa Cappacooli ñu ngi leen di béggee bu baax. di kontaan ci ànd beek télévision Futur Média alo waaye yéen tamit xanaa bugg leen bokk ci aji texe yi 88 628 22 22 150 000 laay joxe bi may jël téléspectateur léegi nii oustaz yaa ngi ci point bu am solo <coughs> muy rammu kon rammu am na. jërëjëf El Hadj ci laaj bu am solo bi. Mm-hmm. rambu mooy ashafaa. ashafaa. Mm. may bind rek. billaay ko bindul yàqu nga yi saa si wax dañuy wax ngeen di ree mais bu ngeen doon notee après bu ngeen toogee à tête reposée ngeen di ko relirat di ngeen yokk xam-xam ci euh, taxawaayu sunu borom. alaaji Pape. ramb mooy ashafaa. ashafaa. ramb gu mag gi nag ki ko yàlla jagleel. Hmm. ñu tuddee ko ashafaatul kubra. Hmm. sayyiduna Muhammad a koy def. sallallahu alayhi wa sallam. waaye pap képp koo xamante ni bii jàngal nga sa doom alquran ba sa doom mokkal alquran ci aas bi mu nekkee ndaw nga sax ci lu baax sa doom jooju nga yar ko ci lislaam ba mu mokkal alquran bu ëllëgee yowmal qiyaam yàlla da koy dekkoore oh. décoré bi ko yàlla di décoré mooy da ko naan tey am nga garaatu rambu. Ah, sa doom di ngay jugal alxuraan. Mhm. moom mun na laa rambu kon. yàlla danaan ko da ngay rambu tey ci sa côté yaay ak ci sa côté papa. léegi nu muy def. par exemple sa côté yaay. Hmm. tànn fa ñaar fukki nit yu naroon a dem safara. Eh, kon dinaa réew de. <laughs> bébé astu dina dugg mami. Adja Diallo munaas Ndiaye gaw mu dugg. <laughs> mais yow doo ramb. am na sama nijaay boo xam ni mus na maa pes kooku duma ko rambu ramb Abdou Diallo maam góor sama waa kër yaay yi laa ne nii de <laughs> waa Mali yi ñoom du ñu dugg ndax da ci am koo xamante ni dafa lekkoon sama xaalisu yaay. <laughs> Oustaz lii lu am solo ngay waxa ah. donc doom daa war a jàng alxuraan ndax mën na am possibilité ràmm ci ñaari côté yëpp lu muy wax ci côté yaayam ba pare. bépp xale bu mokkal alxuraanul karim hmm. ci sa dund. Hmm. su yowmal qiyaamee yàlla dana la rambloo ci sa côté yaay ak sa côté pap ñaata xam nga lan mooy ramb pap waaw. mooy ku ñu classé say dossier ba nga naroon a dem safara. ok ku nar dem aljana kenn mënulaa laa parce que réussir nga ba pare. ah d'accord ramb mooy ku naroon a dem safara nga ne yàlla rus ma ci. dugal ko ci sama quota. Ah. mu dugg ci sa quota nga ànd ak moom dem aljana. allahu akbar kon ba tey. imposer sa doom mu jàng alxuraan y a rien de tel. amul pertement balaa ngaa xam njëriñam. Euh, ngeen ngeen tase àllaaxira amul pertement amul pertement boo ci amul bénéfice am ci rammu. <laughs> voilà loolu mooy repêché. comme repêché examen d'accord d'accord sama tonton tonton kooku du du ko ràmmoo sama tataa tata Ami Diallo dinaa ko ràmmu tata tata kan tata aji buya Bouba Ndour moom ni mu maa ngi réfléchir. Bouba Ndour bu waxuma la ñàkk ràmm rek non seulement duma ko ràmm mais damay proposer yàlla est-ce que mun na mun naa taxaw ci balcon bi di ko di ko séen ci suuf naa ko doo ambiance. oustaz <laughs> loolu dina neex de xam naa su ma yoroon caabi àjjana nag dina am ñoo xam ne naa leen dugal sax mais balaa ñuy dugg dinaa leen toroxal toroxal toroxal toroxal toro toroxal ba sama xol sedd. <laughs> <laughs> donc ku yebu rek imposer sa doom wala ñaax ko pour mu jàng alxuraan puisque mën na laa ram bu ëllëgee nga am lu tubaab de repêché fa yàlla. dégg nga wax bu mhm. bi alayhi salaatu wa salaam. nag dafa am beneen façon bu ko yàlla defal. muy ban. moom yàlla da ko naan ishfa tu maanaam. taxawal xool ku la neex ku waroon a dem safara. Mhm. nga dugal ko aljanna mu dugg ci sa quota ci sa daraja parce que yaa tool noonu. ah ay deal la de. am na foofu. <laughs> yeneen deal. yàllaa ngi nag non arrêtel <laughs> maam Betty Ndiaye moom dama koy dugal. àjjana direct mu ñuy tereel. Betty traiteur maam Betty Ndiaye. maam Betty da ngay dugg. mais xam naa ni sax imam mën na laa mais Pape il faut nga xam ne nag yow mal xiyaam. Mhm. kenn kese moo amul sens interdit ci lépp. muy yonent bi. feu rouge yi sax bu ko neexee brûlé ko. Ah. jàmm ci njëkk moo ci mujj. Mm. te muy Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. xam nga moom bu jógee ci bàmmeelam nii rek bu dekkee jóg taxaw lu muy njëkk a wax. xarajal nabi. xam nga lu muy def Pape. Mm-hmm. ana awwalu naasi xurujan iza bu'isu. est mooy lan. mooy man maay rambu jaam ñi ëllëg maay njëkk a jug taxaw ci sama bàmmeel bu yàlla delloowee ruu yi ba ñëpp war a dekki maay njëkk a jug taxaw xolal wa ana mubashiruhum isa yaisu ñi amee stress maay dindi seen stress yowmal xiyaam maa leen di bégal ànd ak ñoom kuupaleeg ñoom ba biir aljanna moom Seydina Muhammad daraja jooju yonent bi rek moo ko am ah, sallallahu wa ana xaadimuhum ida wafadu maa leen di liggéeyal maay jiitu may xàll cortège bu malaaka yi bu ñu ñëwee naan eh, fu ngeen jëm an seen carte fu maay taxaw ne eh man la muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu daaneel barrière yi mhm. am na koo xam ne boo ànd ak boo ànd ak moom foo bëgg a dugg dugg dëgg la di ko ànd ak li ma àndal lu la neex laaj yenn saa yi nga jëm ci barab ñu bëgg laa seppee eh, an sa carte nga ni maag diwa ànd tu te yi ne ci bunt yi <laughs> <laughs> ay nit yoo xamante ni dañuy xëy suba ba ngoon boo leen xoolee danga naan ñii xeex rek la ñuy bëgg la ñuy bëgg nit yi. dégg nga wax ba. man dematuma fenn ndax <laughs> ñu mel ni ñu la xamul doonal président sax. buñ la nee noonu ak naan an sa carte te dafa mel ni plaisir lañ. am na fu ma dem bërki démb di seet benn kilifa ak <laughs> si ci bunt bi waaj na ma sa carte d'identité ne ko aw ma carte d'identité taal sama oto ñibbi. waaw waaw sa kanam rek d'identité la dëgg la de. xam naa des fois dañuy am plaisir waaye diw laa jàpp. am sa kàr seen kër yi noonu lañ koy nettalee. ba ci Pape waaye diw laa dama koo jàpp. mais Pape waaye dañuy dañuy bandi bandul nekk ci télé bi di jaay affaire. <laughs> Pape loolu moom. man deew ma fenn benn visite du ma gis. bërki démb waa ji daf maa téléphoné foo ne ma ne ko maa ngi ci rond point Yoff. waaw man damaa tëju rek. ma ñëw këram di ko seet si gardien bi ni ma. Mhm. an sa carte d'identité. Mhm. ma ko aw ma carte d'identité man étranger laa ci dëkk bi. wala te étranger nga nga jógee. ormai per favor <laughs> da ngaa impegnato rek mais du ko fi de kayitu Italie nga yor yow xanaa xamoo bu ñu newoon Ngathie Poutier yaag maam Diarra Fam ay bokk avion <laughs> honorable député Italie ngeen di dellu <laughs> double nationalité. yaa ngi dégg Pape. Eh? mais yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo am ci kotaawam Pape lu kenn amul moom. Mm. dépendrul ci mokkal Alquran. Mm. dépendrul ci cir yi yàlla di séntu ci nit mm-hmm. moom yonent bi yàlla da ko naan rambal mu ramb mm-hmm. xale bu mokkal alquran ëllëg day ramb mm-hmm. yàlla daf lay rus mu am ñeneen ñoo xam ni paap du ñu ramb mais même bu nu faatoo aljana lañ jëm am na ñoo xam ni nga ni buñ faatoo dafa am yu yonent bi cité woon ne ku ci génn àddina yàlla nee na martyr nga maanaam ku shahid nga wallaahi wallaahi martyr bokk na ca jigéen ju doon wasin jaare fa ñàkk bakkanam kooku àjjana direct amul amul amul sens amul interdit mhm. direct ku dee ci lakk-lakk mhm. tàkku tàkku safara nga ne ca biir ba faatu aljana nga jëm téema taal fi ñu dee ci comme ku dee ci lakk àjjana nga jëm parce que man tamit des fois damay tiita ah. des fois damay topp àdduna bi ak ni mu neexee xam nga mais des fois damay tiit de li yomb nag mooy jéem a taal fii rek <laughs> ñu lakk ba jeex kooku shahid ga ah loolu xaru la <laughs> ah oustaz benn ku dee ci lakk da ngay dem àjjana man xam naa des na tuuti bu ma toogee télé bi direct dama koy taal dinaa mel ni waa Gaza. mais loo mais loolu xaru ah mais lakk la <laughs> mais lakk la lan la luy problème bi lakk la. <laughs> kon Pape Rambu. Eh? dafa am yowmal xiyaam. waaw ah, waaw. fekk ku yàlla. ra maanaam Rambu mooy intervention. Mhm. policier bi jël say pièces. mooy ñaan njëkk. nga woo commandant bi ni ko ñaanal ma njëkk ci ki ma jàpp. Mhm. mu woo ko ni ko diw moomu de su ma sañoon nga baal ko. Mhm. mu delloo la say këyit. Mhm. yow mal noonu la yàlla di def ak jam ñi. mais am na alkaati yu bëggul loolu de <laughs> boo laalee sa téléphone bay woo seen chef yow xoola perewote nga jëm dañ lay tëj <laughs> <laughs> ki la de bu ma ko manoon a yónnee xaalis ñaar fukki junni léegi laa koy yónnee fii ma. ndax soxal bu ki la ramasse waaw. man ku ma ramasse sama papa laay woo. teen saa yi moom it màgget la day teel a tëdd ndeysaan jour boobu na tombé saa papa teel a tëdd mais bi ma nee allo waaj def ma ne yow da ngay dem. teg ci di ma kokkali non je blague safur la damay tooñ <laughs> yaa ngi dégg pap <laughs> waaw. mu nekk nag pap ay màndarga yoo xam ni. li fekk accès goo ci. yow mal xiyaam accès gul. allah mais boo ci accès nag te ñu koy dund ak fi jamono toll pap jàppal ne yow mal xiyaam agsi na. léegi nag yow laay bàyyi. nga jugé. ndax gis naa loo xam ni mu ngi wane ni yowmal xiyaam yegsi na. jege si na ok maanaam point yi yonent bi cité woon. Mhm. yonent bi avant muy dem. Mhm. dañu nit ñi xamoo leen yowmal xiyaam waaye dinaa leen citeel ay point yoo xam ni saa yu ngeen ko gisee na ngeen xam ni yowmal xiyaam jege si na ñu ne Seyduna Muhammad màndarga yooyu ban ak ban la hmm, boo demee ba gis ustaas mu sol costume xamal ni yowmal xiyaam daanaka yegg si na premier point yaa ma ne danga may bàyyi ma jugé boo ñu demee ba jamono dox fa tabaarakallaahu nga taal sa télé gis li tool lu toll ni oustaz sol costume près du corps. mais Pape sama sama référence la daan sol costume. waaw loolu la yàlla dogal damay toojoo tamit. Serigne Cheikh Tidiane si almaktum sëñ Cheikh rek nga faa. moom rek la mais xam nga ni moom it daf la faa. sëñ Moustapha. sëñ Moustapha plutôt doom ji da la am na seen benn photo boo xamante ni sëñ sëñ Moustapha ni mu ni mu la dappoo noonu ku sañoon am loolu ah. ñëpp ko bëgg. ah yow man loolu su ma ko amoon njël laa koy def barki borom Touba su ma amoon sëñ Moustapha teg ma loxo. Serigne Moustapha Sy xam ngeen lan la xam ngeen mooy kan teg la loxo accolade la billaahi bu ma ko amoon njël laa koy def taf ko bu may def émission ñëpp di ko gis ndaxte laa nga àddina bët alaaji pap moo doon bàyyam ba bi ma nekkee xale di jàng daan ko seetaan dama daan dama daan rêvé ni yàlla naa dund mhm. ba teg ko bët nii yow rek bëggoo ko est-ce que xam nga ni man am na loo xam ne peut-être su ma ko defee ci tele mun na mel ni caaxaan man suñu waa kër dañ ma daan woo di ma fay pour may toppandoo ni muy waxe ñëpp ko bëgg. wallaahi ndax cofeel dama ni képp ku bëgg xam-xam. Hmm. bëgg nga Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum. Hmm, almaktum. Hmm. dàppam googu noonu ñëpp ñëpp amuñu ko de. moom yàllaa ko dugal ci xolu jaam ñi. pare di la tudd di tudd sa tur. ah man bëggoon naa sëñ Moustapha sëñ Moustapha tudd ma de. Ah. wallaahi xam nga loolu nga am sëñ Moustapha man loolu laa am ci Serigne Maodo de. sama papa Maodo. moom la ma bëgg de moom nii la ñuy toogee di waxtaan ah. wallay wallay sëñ Maodo du toog ci kaw may toog ci suuf de ci lalam. day toog day toog ci kaw ma toog ci kaw naan ko père jox ma parfum mais Pape kooku dafa baax. man loolu am naa ko ci waa kër maam Abdou Aziz. man daal Pape. Mhm. li ma jaaxal mooy njabootu Seydil Hadji Malick gi. radiyallahu anhu. moom daal seetu bu toj lañu. Mhm. koo ci for gis sa bopp. Mhm. waaye pap Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane si almaktum day nit ku baax. Mhm. day nit koo xam ni alaaji Pape yàlla moo ko dugal ci xolu nit ñi. wallaahi wallaahi. am na loo xam ni bu la ko yàlla defalee du sax njàmbaar. Mhm. suñu borom. wallaahi sunu borom. cofeel bi ñu am ci moom mu am ko ci ñun. Mhm. yàllaa ko dogal. wallaahi waaye gis nga alaaji Pape mandarga yii ma lay waaj a wax. saa yoo ci gisee benn. yii ma lay limal nii. jàppal ne yowmal xiyaam moom mën naa doon sax vendredi bii di ñëw. ah yàlla na yéex kon ñu dem ci mandarga yi en même temps oustaz di lim mandarga yi ngeen di woote bu amaatee téléspectateur léegi nii ñu jël ko ma texaat ci enveloppe vingt joxe 88 628 22 deux kon oustaz ak may may rek ma jël. Euh, mhm. préparer wàllu publicité yi ci ginnaaw comme ça bu ñu dalee rek. nga ñëw ak ñun ci màndarga yi en attendant kia di taataan yenn ci ay questions ak ay commentaires yoo xamante ni yéen a ngi ñu koy yónnee ci hashtag bii di euh, midi plus euh, Tata Bousso yaayu xoyaan moom mbokk na ci inconditionnel yu euh, duo Pape Cheikh ak Oustaz Modou Fall Ajatou Ngoné Jonn yaayu tabaraak Ndey Khady ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax a baax bu amaatee ay téléspectateurs ñu jël leen Amina du Thiam moom mook Oustaz Modou Fall yam Genova rek xam naa ni fi mu ne Sénégal da ngeen fay ñëw vacances rek réew maa ngi nii nag di nuy nag waa càppaacóol yi ca France boo fa demee de bu ñu la ceebalee sa xol sedd Fatal Balago ñu ngi lay ziar bu baax Alimatou Ben Haj ça c'est ma petite sœur ñu ngi koy béggee moom itam 88 628 628 76 76 allo bu ngeen composé bu saturé da ngeen di raccroché composé waat. yéen rek lay xaar ci woote yi ay ca na téléphone bi euh, gën a yaatu pour téléspectateurs yi ndax xaalis bi ñoom ñoo ko moom di leen euh, jox ay émission yu am solo bokk na ci midi plus bi di leen jàngal di leen gindi ba noppi itam di leen teral loolu defe naa euh, télévision Futur Média rek ko ko mën Adjatou Kiné Ndiaye madame jigo ca Gàmbi mënuma émission te duma la xalaat ndax sa mbaax mu ngi lay ziar bu baax Chérif sambu ca États-Unis càmmiñal Fatou Camara Chérif dalaa bëgg ndeysaan Chérif Samb Chérif nit ku baax la mm-hmm. xam nga Gambien yi moom foo leen tuddee rek sa xel dem ci seen baax baax mm-hmm. Gambi boo fa demee xel dem ci euh, ajatu ki na Njaay maa ngi lay ziar bu baax euh, madame Jigo te xam naa ni Youssou moom buy dem Gambie fii de kañ la Youssou di dem Youssou defe naa mu ngi dem Gambie le 12 le 12 la defe naa de ah. ci ñoom Khady fay ak ñoom vraiment ñoom ñëpp a baax mais buy dem daal lu 12 il faut ma ànd ak moom euh, foofu ca Gambie aji Rokimas Ka voilà doomi imam ratib bu Banjul Rokimas Ka euh, di mbokk ci oustaz Pape Anne boo ko fekkee Dubaay euh, daf lay teral ba soxol sedd donc Rokimas Ka maami Ro maa ngi lay ziar bu baax moom sama yaay la sama xarit la foofu ca Dubaay alo alo balaa ñu ñëw ci màndarga yi.

bi ci gën a tuuti cent mille bii ngeen di seen mayoo ma ko man bëgg naa daal tàmbalee au moins minimum minimum benn cent cinquante mille minimum joxe léegi deux cent mille minimum joxe léegi benn trois cent mille minimum joxe léegi benn cinq cent mille et puis ku ma may xaalis ba yónnee la ko directement ci calpe bi nekk sa sa téléphone portable mën naa ci boole euh, sa tour euh, fii léegi dimanche après-midi ñu may la loo bi gën a euh, mag. ci yu mag yi ñoom chambre à ñoom seen loolu maa ngi ko tuddee grand maye 88 628. 628 20 20 allo allo hey tey téléphone bi saturé na de laa ilaha illallah ute naa keroog nga xam ne dafa fluide mais tey moom dafa mel ni yéen ñëpp a songandoo yéen ñëpp a songandoo songandoo bi am na koo xam ne moom bu ma demee li may wax sànq sama yenn nijaay yi am naa ci cousine boo xam ne du dugg munaas njaay yow doo dugg fenn yow moom yow moom yow boo demee buy dugg sax dama lay diri génne la doo dugg doomu maa Adja Adjatu bébé Astou ñu ngi lay ziar bu baax yaayu Salimata ak Thiané ci dëkk bu ñu naan waaye sama yaayu bopp béti duudu kor imam ñu ngi lay ziar yi itam bu baax imam duudu mu ngi koy ndokkeel 88 628 20 20 allo ñoo dugal publicité yi kon pour gagner du temps bu ko defee juste après ku ma fekk ci ligne bi rek jël ko jox ko wàllam ci yii may yi may séddale kon am na am na ñu nekk ci ligne bi ñu jël leen voilà donc je vérifie en même temps fan ngeen tollu ci woote yi balaa ñuy ñëw ci mandarga yi bay ñëw ci question yi nga xamante ni yéen a ngi ñu koy yónnee sànq ba tey ci hashtag bi di midi plus. ci compte yi nga xamante ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi donc réagissez commentez avec notre social TV vous pouvez euh, donc envoyer vos questions ci euh, sunu ay plateforme 88 628 65 65 léegi ku woote ma jox ko enveloppe bu duun bu mu fanaanoo ana ñu bëgg a fanaanoog xaalis tey ana ñu bëgg a fanaanoog cent cinquante mille ana ñu bëgg a fanaanoog deux cent mille léegi léegi léegi léegi léegi ci tàng tàng tàng bi allo allo. allo. très bien donc noonu euh, gaam boobu baax na téye ko foofu rek ab Samba. bu ko defee kii dugg ki topp ci moom ak ki ci toppaat ñu na jël leen kookan la. man la Maam jaara Ndoye. Ah, maam Diarra yee jëlanteeg man xam naa ni soxna Baali Muntaxa seen turandoo kontaan na mi ñu fayee maam Maam Diarra Bousso Maam Diarra Ndoye. waaw Maam fooy wootee. maa ngi wootee Ngor. fan Ngor. waaw. sori woo ñu fan ci Ngor. Ngor virage. Ngor virage. garage waaw. ah d'accord naka naka naka Ngor. Ngor ñu ngi ci jàmm. nu ngeen def ak guddi àjjuma bi. waaw guddi àjjuma bi nii ngi déglu bu baax li saas Modou Fall di jàngale. waaw mu ngi bu baax. jeena kon du ma la téye lu yàgg parce que sànq ba tey maa ngi xaar am na ñu nekk sa ginnaaw dama lay jéem a xool ñaata laa lay dimbalee danga am da nga am soxla xam naa xam naa banque nga fan yii de. waaw banque naa trop. yoroo xaalis. non ñaata nga yor instant yi sa poset. am instant yi gis na bëriwul 2000 francs. 2000. waaw. bàyyi ma laal la benn cent 150 000 léegi nii. <laughs> merci Pape Cheikh. 2000 tuuti na ne quitte léegi nii ma yónnee la 150 000 xaara xaara ma envoyé la 150 000. waaw. neex na de lii jar na yuuxu de. jar na yuuxu moos. dégg naa la yaa ngi nooyi fi mu ne gëmeewoo ko. billaay gëmeewoo ko. bu la kenn xamal dara ndax noo mën a ñaan. billaay dëgg la moom. Sénégal boo fi amee xaalis dañ dañ la koy lekkale. billaay dañuy xëy suba di la woo. wallaay bu jeexee ñu naan pourtant ak amoon xaalis. billaay dëgg la. dañ lay lekkale dañ lay lekkale bu la kenn xamal dara. incha allah. waaw bu la kenn xamal dara alors vérifier yónnee naa la cent cinquante mille sa téléphone. waa ñëw na. liiral mën nga liir. waa xam nga liir. waaw vas-y liiral yónnee naa la cinquante mille maam Diarra. nañ jël ki ci topp jox ko deux cent mille. Multiplex vient de vous déposer cent sur votre calpe. waaw waaw. Mhm. loolu xanaa neex na. neex na trop merci waay. kon TFM dafa neex ci xol. waaw TFM sa kaw sa rek. dee na ci lu baax kontaan naa. merci beaucoup. merci d'avoir rappelé Soxna Diarra ay ca dañ jël keneen 88 628 76 76 88 628 20 20 ñu yónnee ko léegi ku ñu jot rek yónnee ko enveloppe am ay ca allo allo allo. je vérifie en même temps seen ay appel je rappelle que bu ngeen wootee numéro yi day affiché wu ci euh, écran bi ma jàkkaar lool 150 000 laa joxe léegi nii mën naa joxe beneen euh, enveloppe 200 quapa pourquoi pas 88 628 20 20 wala 88 676 06 06 ayca na woote yi gaaw balaa ñuy euh, jàll ci publicité yi bay dem ci deuxième partie midi plus guddi àjjuma bu dee da ngeen di rattrapé wu bëccëgu guddi ak bëccëgu àjjuma itam dañ ci ànd ak yéen. 88 628 65 65 allo allo allo ayca ma may leen quelques minutes le temps ngeen daw dugg si bay composé suñu ay numéro de téléphone ayca na woote yi gaaw Tata Fanta Fifi Kanté très fidèle ci euh, Midi Plus bi ñu ngi koy ziar bu baax 88 676 03 03 allo 150 000 mën naa ci teg léegi 200 000 de war naa mën a nekk de et puis bu leen fàtte pariru or yi salon yi ak chambre à coucher yi dañ koy boole ci maye yu mag yi gis ngeen bii pariru or ñoo ngi ko jëlee bijouterie la solution aji caam gàcce ngaalaama yow 88 628 76 76 88 628 20 20 allo xaar baa ngi bëgg yàgg de gaaw leen ci woote yi réfrigérateur yi tam dañu koy maye yi ngeen di gis yëpp ñoo ngi ko jëlee Kabirex voilà Kabirex am na fii ci boulangerie jaune bi am na kaw Kaolack am na itam côté Sédima lépp rek ci showroom yooyu bu ngeen fa demee am ya ñuy jaay diggante téléphone portable ak électroménager ay ca yéen rek lay xaar de là je vois beaucoup de personnes qui mel ni dafay saturé ci ginnaaw soit ngeen def ko ndànk rek bu leen ko soroxo soroxo fi mu ne ñëpp banque man mii di ko joxe ci télé bi kenn gënuma banque waaye yàlla waxul kenn dara oustaz ñii nit ku baax la moom lekkul dara bàyyi ma te fan daal dafa mel ni oustaz temps yi da nga mel ni ku ma gàllaaju temps yi yow rek kay am man du ma am xaw ma nu mu demee noonu te pourtant ñun ñaara daan am Hmm? man dama am ñaari émission boo xamante yoo xamante ni dama ciy am midi plus bi ak wëndeelu wëndeelu bu ñu defaat émission ba pare ba tàggoo hmm. ñun ñetti paawu géwél yi man garit ak mbay jee dañuy taxaw di séddoo di pàccoo di pàccoo suñu may message yi <laughs> je te jure mais léegi message dafa féete boor quoi madame Mbengue daa gis message ah dégg na message de te Aziz Aziz Ndiaye li ma jox keroog jeex na te wax dëgg yàlla man affaire day kii quoi dafa mel ni suma loxo bi amoo ay ñaan yoo xam ne day téye xaalis lu ma waaye jox nu mu toll day dem. <laughs> man loolu daf maa métti <laughs> sama loxo bi bënn day mel ni tame c'est pas normal aussi yow saas mais quand même heureusement ba. nekkuma téléspectateur ndax xam naa su ma nekkoon téléspectateur du ma wàcc composé numéro bi damay bës rek di bës di bës donc boo amee téléspectateur léegi nañu ko jël Pape Samba wala ñu dugal publicité yi doog a euh, benn bennal ak ñoom on aura plus de temps du ñu am benn pression donc continuer d'appeler je rappelle que ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé benn euh, ci suñu ay numéro de téléphone di ngeen am chance ma jël leen yónnee leen ci saa si ci waxtaan bi ci calpe nekk ci seen i numéro ci seen i portable euh, enveloppe bi leen may ça peut cinquante mille mën na nekk deux cent mille en tout cas dañ leen di gindi ci diine ji mais en même temps di leen teral ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal tout de suite

roi de Jordanie wax ak moom ba pare roi bi di jooy mu ne mësta toog ak nit wax ko dëgg yu ni mel bàyyi jili judduwul rek amee milliard milliards yi da koo dab par le travail waajuram woo bis ne ko demal jàngi jàng laa la sant mu ne ko man bàyyi taxawaalu ma damaa bëgg liggéey rek pour xeeti li mbindee fii waaye xam naa ne lii may def de boo ci àndul dama ci am barke waaye juróom mu teddoo maam Cheikh Rabiane di dënn ba yàgg mu ne ko demal liggéey def na ci defal barke mooy sénégalais bi fi njëkk am avion privé moom ko fi njëkk am Gulf Stream de boobu c' était un, un, un jet qui peut qui prendre douze passagers en VIP vraiment euh, grand salon et trois membres d' équipage. Euh, nekk nit ku nekk nit ku wàccee soo ko fekkee ci jotaay doo ko xàmmee ak ñeneen ñi lu oyof tokki suuf mooy jox ñëpp ñu lekk jox ñëpp ñu naan duñ la newul kii la doo ko xam. def na benn maquette jumaa Médine ji def ko or def ci plus de cent millions jël jet privé ak tëgg bu ko doon tëgg yoonu ko yóbbul ko buuru Makka ba yokk ko. c'était quelque chose estimé à entre vingt et vingt trois kilos d'or mu may ko ni ko kii suñu maquette bi roi bi ni ko man itam danaa la defal loo xam ni ah defaluma ko ñu bare. jàmm ñëw ngay séddale xaalis. da daan xëy ba jant bi sow di séddale xaalis. nekk ci suufi yu mag te fe fesalu ko sax mais ñi xam xam nañ ne kii nitu yàlla la. daf ma doon joxoñ ne bu génnee àdduna foofu lañ koy denc donc il avait tout prévu quoi. exactement date bi ma waxoon ci la génn àdduna nga doo passé le 14 mars le 14 mars boobu ci la génn àdduna. bu mu jegee di waaj a kabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ñaari loxoom ci mbagg mu daal bu ngeen ko gisee da ngeen di fexe ba mu ñaanal leen waaye du ngeen ko laaj xaalis te xaalis bi da ko nëbbu woon rek yitte seen yitte mooy sunu yitte askan wi jafe-jafe yi ñuy dund li ko sookee lan moo koy saafara moom la ñu nar a waxtaanee am na ay société yu nekk fii ci réew mi moo xam dañuy yëngatu ci wàllum pétrole wàllum mine agroalimentaire service leneen lu mënti doon fi ñu sampu ndax li leen war ak askan boobu ñu ngi koy matal loolu la ñu nar a waxtaanee ak askan bi ci boppam ak société civile bi société yooyu tamit muy këru liggéeyukaay te français naan ko responsabilité sociétale des entreprises

danse art culinaire art plastique artisanat industrie culturelle et créative bref la culture sous toutes ses facettes dans Culturec eh bien nous vous convions tout simplement à un voyage avec à bord un menu divers varié exquis authentique exotique concocté par des professionnels du secteur Culturec le magazine des arts et des créations bientôt sur votre chaîne de télévision préférée la télévision Futurs média hello guys ñëwati naa ak nouvelle bu neex xam ngeen ni ñu ngi bëgg a jeexal at mi di waaju dugg ci at mu bees te saa yu ñu ci tollee groupe Futur Média day gërëm ay téléspectateur am ay auditeur am ay lecteur am ak ay internetam bu ngeen fàttalikoo daaw teg nañ ci table ji enveloppe bu duun bu toll ci 60 millions ñu séddale leen ko tegoon ci itam ay cadeau yu mucc ay ay parure or ay frigo ay chambre à coucher ay salon bu ngeen fàttalikoo tegoon nañu ba teg kër gii nga xamante ni moo nekk fii ci Almadi 2 ñu ko jox daaw ba léegi xol baa ngi sedd loolu moo tax nag Teranga Sénégal dafay dellu si waat GFM en fait Teranga Sénégal saison 4 ren nag indil nañu leen ay cadeau yu gën a tee mucc ayib maanaam ren moo nar a dàqati ay iPhone 15 Pro Max 526 giga ay chambre à coucher complète ay meuble ak lépp lu mu àndal moo xam biblo moo xam tapis wala lépp loo xam ne da ngeen koy soxla ci kër xam ngeen fan ngeen jëm chez Ombelico Meuble bu ngeen fa bëggee dem daw leen gaaw boori stade Marius Ndiaye ay parure or yu mat sëkk jaaro ceen ak lépp lu mu àndal bu ngeen ci bëggee dem leen bijouterie la solution ay téléphone Samsung Galaxy Fold 3 ak lépp lu ngeen soxla ci wàllu téléphone Samsung ak it ay téléviseur ba ci smart TV boo xamee ni mu ngi tollu ci cinq pouces ay frigo side by side yi mujjee génn li ci dàqati nag enveloppe bu toll ci un million la ñuy teg gis bu jot ci lépp luy émission woote maanaam émission interactive moo xam ci rajo bi ba ci télé bi lépp lu ngeen bëgg bëgg bu ngeen wootee ci Teranga Sénégal dañu leen koy jox moo xam man wala yeneen animateurs yi nga xamee ni ñoo nekk ci télévision Futur Média wala sax ci rajo Futur Média ci kaw ngeen woote ci numéro de téléphone yi ngeen xamee ni mën ngeen ko 88 676 05 05

li ci gën a neex nag maye bu mag bi xam ngeen ni chaque dimanche après-midi à partir de quinze h laa koy amal en direct ci télévision Futur Média foofu nag laay joxe enveloppe yu duun yi waaye nag bu leen fàtte suñu ay numéro de téléphone dafay fonctionner 24 heures sur 24 7 jours sur 7 dàq leen seeni i wërsëg bu ko defee kenn ku ne mën a am ci yu duun yi nga xamee ni Teranga Sénégal moo leen ko jagleel yéen téléspectateurs yi yéen auditeurs yi yéen lecteurs yi ak yéen internautes yu groupe Média GFM en fait Teranga Sénégal saison 4 Teranga Sénégal groupe Futur Média daf ci ànd ak LONASE. Aliou Cissé un entraîneur qui nous fait le plaisir de nous recevoir.

Ah, sur le plan mental. Ces critiques aussi, beaucoup vous reprochent euh, d'avoir pris part euh, à la non-qualification de l'équipe nationale olympique. Tidiane, vous voulez que je parle Tu as gagné combien ici 3-1 mais des critiques, c'est pas mal aussi. Parce que mm. ça vous permet aussi de, vous, remettre en question. Et en réalité, <laughs> ces critiques m'ont aidé. Et je te dis merci. Parce que ça m'a rendu encore plus fort. Ça m'a poussé encore à aller <laughs> bokk na ci aléa yi ay ay salaire impayé par exemple coow li xaw naa jug na. non non je ne peux pas ça. de toute façon man daal waxuma si première fois ñu koy defal ay salaire impayé. man daal mais mosu ko kaas. man daal waxuma si man daal mosuma si wax. voilà man daal li ma la mën a wax mooy que tey je suis concentré et que toute cette situation là on en parle avec les gens concernés en interne. ça m'a fait plaisir de vous voir pour Merci. éclaircir certaines situations. merci d'être avec nous ñu jàll ci ñaareelu xaaju euh, midi plus bi euh, gërëm leen gërëm itam suñu ay partenaires euh, ci midi plus premier rendez-vous talk show bu ñu leen di proposer ci diggu bëccëg bi et puis exceptionnellement guddi àjjuma bi pour ngeen rattrapé wu ak bëccëgug àjjuma man ak Oustaz Modou Fall en direct ci télévision Futur Média sànq nag maa maa leen digoon ni bu publicité yi jàllee ma enchaîné jëlaat balaa Oustaz di ñëw ci mandarga yi nga xamante ni mooy firnde wane ni daanaka yegg si nañu cappaandaw gi cappaandaw gi nag mooy xii am moom lay waxtaane sànq ba tey euh, balaa ñuy euh, ànd ak kia ak question yi nga xamante ni yéen a ñu koy yónnee ci hashtag bi di euh, midi plus alo alo allo allo cent cinquante mille kuñ ne dañ la koy may nga war a woote deux cent mille kuñ ne dañ la koy may nga war a xëccoo njëkkante ba dugg boo duggee li ci neex mooy dañu la koy yónnee directement ci sa téléphone portable du am xaar maanaam ci tàng-tàng bi diggante aloog na nga def mën ngaa jot ci sa téléphone cent cinquante mille wala deux cent mille numéro téléphone yi nag bu ngeen ci seen ci suufu écran bi rek mën ngeen koo këf peut-être euh, numéro bu baax la numéro favori par exemple 88 628 20 20 moo génn noonu euh, di ngeen euh, dugg léegi ñu jox leen seen wàll ci enveloppe yi ñuy séddale oustaz mandarga yi laa bëggoon ñu ñëw ci. jërëjëf El Hadj ci laaj bu am solo bi. Hmm. nga xam ni yeneent bi alayhi salaatu wa sallallahu alayhi wa sallam hmm. dafa am yu mu cité woon ni non mais li nga sol rafet na nag xam nga xooluma ko woon ndoxu ndoxu piis bee bëla maanaam toof bi nga sol du toofu xale ñun mag ñi xam nga toof la ñuy wax yéen xale yéenay wax sama tissu bi mais toof na toof boo xamante ni de ah, xam nga xeetu toof xam nga Pape man su ma sañsee warulaa jaaxal dëgg la lan la ñuy bàkkee taalibe Cheikh sañse ak mën a xeeñ neex yow tam taalibe cheikh bu tol ni man dafa toll naan ma sañse sañsee tinga dëgg la laa bëgg di dégg oustaz sañsee tinga macha allah parce que moi je suis taalibe cheikh macha allah fa tabarakallahu wilaay <laughs> xale bi judd ci ginnaaw mbay bu ma xamoon ni bu màggee nii lay mel keroog balaa mbay di dem laa koy jël rek dëbbate ko ba mu mokk rek mu ëf ko géej. mais nag bërki bu Pape bi émission bi jeexee. macha allah euh, ñu jiitlante ma ak yow di jéggi tali bi. Mm-hmm. ma topp ci sa gannaaw. dama mm-hmm. jàngat modeste boo xam ne ci yow. non. yàlla xam na ne daf ma jële kaw. Mm-hmm. parce que maire bi jaay ndambe. kii di sama weer. <laughs> waaw léegi wax jaay ma rek. jaay ma rek. maire bii jaay ndambe. ci wetu jaaykatu café bi fii ci tab kii bi euh, tableau orange bi. fa laay guddi gu jot. yàlla sedd na ni bi ma la tiimee ngay jënd ndambe. téeméer. sama xol dafa sedd parce que modeste boobu ma xam ni jaaykati ndambe yépp amel nañ la njukkal ci sa mbaax sa modest bari na ku lay séen ci télé bi naan Pape Cheikh Diallo mi ay miss yu lay reeree waaye nga am modest Pape mën a jënd ndambe mille francs ci ci bool ay waay ay waay oustaz bi xamal na ma waay ay waay yàqu naa waay bëgg <laughs> parce que maire bi dama koy romb tout le temps oustaz Fall man sa fan laa ma ñëw nuyu ko tiim ko uh-huh. gis ndambe bi te man musumaa xam ne fa ngay reeree par émission <laughs> Pape Modeste googu yàlla na ko yàlla saxal. amiin amiin yàlla nga sax ci jënd ndam. <laughs> yàlla baax na yàlla baax na parce que bu je dinaa la mus a jàpp <laughs> naa mus a joxe sa secret. musuma xam ne ndambe log <laughs> mais aw ba ci kersa maanaam ndambe bi téeméer sa aajo faju mburu cent franc ndambe téeméer te ndambe bi day amaale yàpp bu ñu euh, nu mu tudd euh, nen bu ñu baxal da koy trance noonu rek noonu ma koy transi sa biir dafay fees la ca Grand Yoff itam farax caaya ba fa nekk sama xarit ba Abdallah la tudd xaw ma yàlla na jàmmam yàgg Abdallah yenn saa yi mu lebal ma xoola <laughs> ñaari miisu mburu porox caaye 700 francs sama biir fees gisoo euh, man fii laay amee yaram borom borom fu ngeen séenatee ma mel nii rek xamal ni forox ak ndambeeg muy bëgg a rey euh, Pape borom boroom borom may ga yi itam ñu jaajëfal leen vraiment ay nit yu baax lañ Pape may ga am na solo lool ci réew mi Abdallah itam ku baax la waaw moom daal fëgg rek dugg rido may nga xam nga amul fëgg amul fëgg de aj rek ne nii buum yi ñu jàll vert zone euh, rouge yi rocc rek jàmm <laughs> man bi ma neex mooy mais mu ni jëfandikoo je ferai pas de nga xam ne bu ñu jëfandikoo meew bi. ba pare voilà dañuy jël potu meew bi ci boppam xottil la ko defal la ci sa ndékki. alaaji lekk lekkatu lekkatu lekkatu may ga yëpp amel nañ jukkal may ga alaaji Pape boo taxawee commandé ni ko 5 brochette nanu baxal. <laughs> yàgg nga ci. yaa ngi dégg. yàgg nga ci. ba mu posé la question boobu mu lay laaj ci mburu wala ci plat. <laughs> dem kati may gi yëpp bëgg réponse bu ñu miin la ci mburu wala ci plat te kat man yenn saa yi damay jaay star bu ma làqatoo du ma fa bëgg a yàgg su ma nee ci mburu wala ci plat ma ne ko sandis ko sandis ko <laughs> alaaji Pape dem kati may gi yàlla leen may wér allahumma amin yaa oustaz alaaji Pape <laughs> yaa ngi ma ni benn teraanga jàtt xeeb ku xeeb ku xeebul sab noos daal xaw ma nu ñu koy waxee na ku ne na ku ne na ne jàpp ci noosam te bañ a xeeb <laughs> bañ a xeeb noosam voilà donc jekkatu nambe yi ñu ngi leen di ziar bu baax ku neex gi naan maa ngi ci buntu may nga fi taxaw <laughs> ci mburu wala ci palaat <laughs> te kat Abdallah ma ca Grand Yoff mën na tiitaru xeetu bu ne tiitaru boo xamante ni yenn saa yi mu ne ne gàlle Pape Seck Pape Seck ñëw na ma ne ko wax ma ndànk wax sama tur bi ndànk wax sama tuur bi ndànk te may nga pap li ci neex mooy boo yoree xaalis sa noos day yokk wallaahi koo dégg mu laaj spaghetti journée doxul mu tàdd bi la koy mottalee wallaahi ba weex tal mutadd bi wër ko laaj Pape yenn saa yi nga laaj benn omelette sànni ca wallaahi boo banqué ba banque. 225 <laughs> sa biir fees. mais kii di jaay 700 moom fii ci bopp koñ bi moom kooku naa ko defal publicité gratuite <laughs> ci télévision Futurs Médias allez on continue ñu ngi woon ci mandarga yi balaa euh, kii yaa di indi euh, question yi nga xamante ni yéen a ngi ñu koy yónnee ci hashtag bi di midi plus euh, ci compte yi ñu am ci réseau sociaux yi seen xeetu pombiteer nag xaw ma lu nu koy baxalee waaye bokk la pombiteeru kër de. <laughs> yàlla boo fekk kaas yi jeex. wallaahi. pot mi meew mi defoon ñu defal la ci affaire bi. oh loolu mën na maa rey journal bi lëmas lëmas jàppukaay bi. laa nañ dem ci lu sérieux yi léegi màndarga yi nañu ko benn bennal yaa oustaz. jërëjëf El Hadj ah, xam nga yonent bi dafa waxoon ni. Ah. saa yu ngeen demee ba gis màndarga yi ma lay waaj a wax. ci mburu wala ci palaat. <laughs> sawla eh, màndarga yi waaw yaa saa yu ngeen demee. Eh. ba gis màndarga yii na ngeen xam ni yow mal xiyaam yegg si na ku waajul woon waajal. te poobar bi dañ koy jaxaseeg jumbo. <laughs> seen mayonnaise nag daanaka diwlin kese la. kenn xamul loolu. wallaahi mayonnaise. borom may nga yi yal na yàlla guddal seen fan. allahumma amiin allahumma amiin. nitu may ga yi ci biir kër yi yal na yàlla guddal seen fan. li am Sénégal amul fenn Kamal tu as li ci gën a yéeme mooy bu fekkee pap nga war a seeti kenn yére ya nga demee woon may ga ba foog nga changé ko. ah xet gi. waaye danga nga bëgg wax li ma dal barki démb maa ngi rendez-vous ak Mouride. sama mbokk yi taalibe yi nga xam ne dañ doon jaay photo photo Serigne Touba yi. Mhm. man euh, bi. ak pare journal Grand Bal xoola lekk naa ñaari palaatu ndambe yu 700 mais soble <laughs> bu ma la ne bu ma la xoolee sax <laughs> xetu soble bi génn. yéen dama obligé changer yére parfum waat doo ko dem ci ca réunion baak sëñ xaadim ñu ngi koy ziar bu baax yenn saa yi pape xiif fekk la foo xam ni. wallaahi wallaahi. moom loo ñaanal may ngay xeeb <laughs> ci mburu wala ci palaat. bërki démb Kaolack. dama mm. jóge gàmm ñëw ba Kaolack. ci mm. ci côté station bi alaaj Pape ñëpp tëj. Ah, waaw waaw 4 mm. fi ma gestoo ki ma àndal ni ma may gaa ngi nii. mais oustaz xam naa doo dugg may ga ma ne ko looy wax ni day dugg may ga pour man doo dugg may ci may bi fekk fa ay gaay xam naa ay emprunté la ngay reer. Eh. kenn kaa ngi naan kii di oustaz Fall ma ne ko mën a. Eh. xam gi ngeen ma xam dana tax ngeen dimbali ma ma teel a jënd. <laughs> dëgg la de <laughs> balaa borom set bee jeex. bu nee ne gàlle ñëw na loolu mun naa dagg sama xol barki borom Touba. waaye ni ma ci mburu wala ci palaat ma ne ko ci mburu <laughs> jërëjëf El Hadj Pape. Oustaz Pape Hann nee na sëriñu Modou Lo ngay nuróol fi mu ne nii <laughs> waaw moom daa jóge sit si naati bay xool télé bi. foogoon naa ni papa amul jot actuellement ndeke am na jotu seetaan télé. càmmiñu yu ma ay see. dama ko bëggoon a jaxaseeg buubu <laughs> mais doo ko def bàyyi ko rek mu àggale ko ni ko buuba uh-huh. boo yoree ay nit leen di yemale. Mm-hmm. saa yu ma tukkee nga may kar karri di ma sonal li nga uh-huh. tukki nangam di ma indil ay problème te papa du ko laaj dara de. papa an dafa mel ko am gàllaaj tukki ay ko dara tourné kenn du ko wax dara. buuba ni ma oustaz papa daa jël congé maa ko signé. déedéet mais tamit papa an mënul jël congé chaque mois. parce que daanaka weer bu weer bu jot Pape Anna ngi bitim réew. mais lan moo tax kenn du ko wax dara te man su ma tukkee ñu may créer problème. bu dul dara mu xalaat ñaari jabaram yi famille la fi bàyyi quand même waa bitim bu ñu bëggee ku leen di siiral nañu ñëw Sénégal. bërki démb Aysata ma woo bi ma tukkee naa moo Oustaz boobaa ngi wax de. ah ma ne ko Aysata buuba lu mu mën a wax man du ma fi deux jours. mais xoolal vendredi bi. Pape Anne di tukki chaque semaine. télé bi day vide ndax Pape Anne. c'est pas ah dafa am gàllaaj nag magu magu ustaas yi <laughs> magu waaraatekat yi <laughs> ah ñoo gi ay fanaan de àlla jabi àlla jabaani <laughs> safur la Pape Hann noonu xam ngeen ustaas Pape Hann moom moo ma gënal ñëpp te man maay président. nga ne euh, daal li soloon barki démb ay bul ma lu xila oustaz Pape Hann ñu ngi koy ziar bu baax fan yi mu ngi tournée américaine xam naa bés bu dellu see rek di ngeen gën a mën a dundaat euh, siira yu muy amal àjjuma yi ci télévision Futur Média waaye nag ñamu ñamu ñamu mbedd neex na mais ñamu kër boo mose bu ami jeng madame Diallo ca New York. Hmm? kooku day man day bu doon sama sago moom 24 heures sur 24 lay togg. dama daan toog ak këram day jékki-jékki naa ma damaa nam sama ceebu jabar. <laughs> wallaahi donc ami ñu ngi koy ziar bu baax. Euh, foofu ca New York madame Diallo euh, yaayu daal di ak euh, Sofia donc ñu demaat ci mandarga yi yaaw. léegi Pape mën a dagg ay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ni yii ma lay wax. Mhm. xam naa du fi xaj du fi xaj. du fi xaj kay. mais dama ciy indi ñaar rek. Mhm. yonent bi dafa waxoon ni. saa yu ngeen demee ba gis màndarga yi na ngeen xam ni yowmal xiyaam mi ngi waaj a agsi ñu ne ko ban ak ban la. mu ne ida usnidal amru mhm. ila gayri ahlihi saa yu ngeen demee ba gis ni cër yi ñin koy jox moomatuñ ko àddunaa ngi waaja a tukki hmm, cër yi ñi koy jox moomatuñ ko hmm. nga ñëw ci ngénte li toog alaaji Paap ñu ne tëf ne tuddee nañ ko dew ñi ah, toog ñépp xam ni tur wi intérêt ko la hmm. nga dox ba jëmmi jamono alaaji Paap dégg benn fonction boo xam ni wóor na la ni ki ñu ko dénk maîtriser wu ko du yëfam Hmm. jël ki mën tegee nële jël ki mënul indi teg ko palaasu ki mën hmm. yonent bi nee na bu ngeen demee bay dund ci jamono boobu nga xam ne cër yi ñin koy jox moomuñu ko kon yow ma xiyaam yegsi na agsi na hmm. parce que loolu rek alaaji Pape moo xew Sénégal yegsi na la ma mag ma waxoon ni ma France boo fa demee pour liggéey dañ lay laaj ana sa diplôme dañ lay laaj ban liggéey nga mën Sénégal ku ma booleeg yow. Mm, Elimane laa ma ñu boole Doro Gaye moo ñu boole ah grand pape Cissé moo ñu boole yooyu fi am de dëgg la de. nekkul mbir yi tegootul ci yoon. waa mais yàlla tamit def na bras de nee na jaar leen ci yonent bi ma defal leen. wala affaire yooyu mais Pape yaa ngi dégg bu ngeen demee ba cër yi ñi nu koy jox moomuñu ko. Mm. dafa am intérêt bu tax ñu jox leen ko émission bii nga jël jox ko Oustaz du Fall mii mu koy def te mu wóor na la ni Pape Cheikh Diallo moo ko ah, gën a mën bu tax waa télé bi foog ñu da nga leen di gaaruwaale génnal cooy ndax loolu bëri na fi waaye li ngay wax man yoon yu ma la de exemple lay joxe déclic man waxuma la dara waxuma la dara ñoo ko gisandoo waxuma la dara invité d invité d'honneur waxuma la ci dara exemple lay waxuma la ci dara ba tey man ñoo gisandoo man xaw ma ci xaw ma nu mu demee invité d'honneur déclic yi ngay wax nii man santuma la ko xam ngeen lan la seedaleen ma rek yónni ma saas bi àggaleel <laughs> kon bàyyil ma joxe beneen exemple déclic invité d'honneur bàyyil ma joxe beneen exemple non continuer ci boobu garaawul sama desit dafa neex Pape hmm. nga gis ku nekk ci kër nekk fa ak ay nawleem gën leen a sonn ca kër ga wallaahi gën faa nekk jàmbaar wallaahi ñu jël ki fi mujjee ñëw jox ko cër boo xam ni ka ko fa jiitu amu ko parce que nee am xaalis mm. loolu c'est pas normal mm. ah. ñaari jigéen ñii sëy ci biir kër mm. aawo bi jiitu ci biir kër gi xaar na fi lu ne. Mhm. coono bu ne fekk ne ko mhm. fi. toppatoo na sa goro façon toppatoo bu ne. màcc na fi kaani màcc na fi suukar. yow mii di borom këram lépp luy xeetu teraanga séq na koog yow ba tey tax nga am li nga am. kaala gi ci bopp bi ci ndigg la njëkke alaaji Pape nga takk deuxième femme. Mhm. fàtte aawo bi ba mel ni mësoo am jabar. yéen a fi a fi xorom. jël cër ba nga waroon a jox aawo bi delloo ko ñaareel bi. yonent bi nee na su boobaa bu ngeen ko gisee ngeen xam ne àddina mi ngi waaj a koy jox ku ko moomul. Mm-hmm. mandarga yi bëri na de te fi ne yooyu yëpp ñu ngi koy gisaa ah, Oustaz. àdduna àdduna pap ci loo ci foofu la ñu toll. demee ba Oustaz yi di sol brodé. Hmm? brodé quoi brodé. pirx <laughs> costume près du corps. Oustaz di woote forum de la paix. <laughs> te ñu ne la jàngaleel ibbil daara iqra. da ngay forum. nga ne da woote forum woo intellectuel yi dëgg la de mandarga yaa ngi nii nag yaa oustaz. yaa ngi dégg Pape. Hmm. mandarga yi bare na. Hmm. waaye dama ciy cité rek ñaar. quelques hmm. bu dernier bi mooy. an yakuna al waladu ghayzan. loola la. mooy mu dem ba jigéen ñi nekk ci biir sëy sax bëggatuñ doom. mais jamono dafa naqari nag oustaz. ba bëggoo doom. ah waaye xam nga doo am doom di ko yóbbu ci pouponnière. xam nga lu <laughs> yaa jamono neexul. ci pouponnière Ndella Ba. <laughs> am naa fa turandoo man xale fan la ne nii ah Sofia sama doom ji am na fa turandoo keroog woon na ma tonton Pape yaa mu boole woon nag Kandela après ma yóbbu meew mu tuddee ma kenn ana bébé Sofia ma ne ko ah Pape Cheikh gisuma ko. am nga fa turandoo. wallaay am naa fa turandoo barki borom Touba am naa fa turandoo sama benn jarbaat am na fa turandoo. xëy na sensé nañu tur yi <laughs> boobu jël ñu leen jël si. ñooñu du ñu des ak seeni tur. <laughs> ay oustaz te ngaa ci mandarga yi balaa may wax lu garaaw parce que man lu guddi gi gën di dem di xaaj rek sama rap yi di gën a <laughs> fertile di wax ay waxi garaaw. je risque de sortir des groupes. mais Pape yàlla Sofia sama jën baay bi allo tonton Pape Cheikh ana sama turandoo bi ma ne ko ah seen nijaay gisul turandoom sax te toog rek ba procureur wax. <laughs> sawul la eh. Eh, waxal yaa ngi dégg ba ah. yonent bi nee na eh. saa yu ñu demee ba jigéen ñi bëggatuñoo am doom ñi nekk ci biir sëy bi ah. ne dañuy liggéey parce que buñ amee doom da leen di teree liggéey hmm. dem ba gise seytaane bi nee na gisoon na fa bébé Modou Fall <laughs> dem ba reculeel dem ba ñoom bëggatuñu doom bëggatuñu. Demba sama doom jooju moom dama koy récupérer. Demba de nee na gis na fa bébé Modou Fall. non kooku dama koy récupérer kooku <laughs> day kooku kenn ko tëj moom. <laughs> kooku day dem ca ca daara ja. kooku kay fokk nee la jox ma ko ma yóbbu ko ci internat. incha allah yaa ngi dégg Pape. Eh. mu ne an yakunal waladu xaysan. Hmm. su ñu demee ba jigéen ñi bëggatuñoo am doom. Hmm. bu njëkk jigéen ñi daan mooy yàlla te amuñu borom kër ñooy aar seen bopp pour bañ a am doom. Hmm. léegi nag yonent bi nee na bu ngeen demee ba ñi daganante ñooy sëy te ñoom bëgguñoo am doom àddina mi ngi waaj a tukki damay liggéey damay voyager. bëgguñu seen wenn wàcc j'ai beaucoup j'ai beaucoup de voyagé. oui j'ai beaucoup de damay travail aw ma jotu nampal. j'ai j'ai pas le temps. j'ai pas le temps. <laughs> nga xam ni am na ci ñoo xam ni seen jëkkër yi leen takk ñoo leen gën a bañ doom looy ëmb ku la ëmbloo nga ñëw annoncé sa boroom kër ni ko dama demoon hôpital nee nañ maa ngi ci deux mois mu mere la ci mais looy ëmb xanaa xamoo fi réew mi toll waaw xanaa ëmbalu ko banaa ko looy ëmb moo tax may faral di wax ni ku bañ sa jabar ëmb nee ko na tëddi ca saal ba ah ku bañ sa jabar ëmb kay bu ko ëmbal nañu wax wax jite dañu wax wax jite dee nag. non pap nit daa mën a ëmbal ba. pap na tëddi na të. <laughs> paa ëppal pël soo ko na si mu ne dafa wumbu <laughs> ma ne ko kañ la wumbu bi mu juddoog léegi yàgg mun ne dafa wumbaat <laughs> ma ne ko xanaa dafa nef mu ne ma xaw ma nu mu tudd mais dafa wumbu bàyyi leen umbu. mais sa jëkkër mer parce que da nga umb loolu quand même. Euh, ci mandarga yi la bokk nee na nee na mandarga yi wane ni yow mal xiyam egsi na saa yu la sa doom sa jëkkër ne sa jëkkër saa yoo ko waxee ni ko dama ëmb. Hmm. mu mer. dafa umb. <laughs> na gëm ni àddina mi ngi waaj a tukki. jigéen ñi bëggatuñoo am doom. Hmm. te Pape est-ce que xam nga ni def planning familial. Hmm. ci kuy sëy. te médecin digalu la ko dangay am bakkaar. ah yenn saa yi nga dégg ci réew mi ñu ne la droit de la femme nee na xaw ma lan de la femme article bi nee nañ bëgguñu teg ëmb bu tegaloo bi parce que njurum xale yi seen yoon nekkul ci sharia sharia moo ni képp ku takk jigéen mu lew la amante leen ay doom parce que yonent bi nee na ëllëg man rek maay taxaw ci sama kanamu xeet di tiitaru ci kanamu yonent yi naan leen sama xeet moo ëpp seen xeet. mooy soble mbay bi ma wax keroog. mais quand même jamono fi mu toll nag oustaz àndul ak ay umbu umbu jamono dul jeex ay doom yi dul jeex jamono benn doom rek chargé la. déedéet pap ah déet damay wax wax tamit oustaz. pap nañu soreel njur yi. pap nañu soreel njur yi soreel njur du alquran. ah mais oustaz tamit soreel njur tamit moo gën. déedéet ci ci bien-être xale yi. pap yàlla def ni. oustaz di nga wax seetaat ko de. déedéet déedéet pap charia laay wax de. mais seetaat ko de xoolaatal téere bi. wa <laughs> tabaarakallaahu xoolaatal téere bi. bu leen bañ a am doom. waaw ngir ragal ñàkk. Ah. bu leen bañ a am doom. man duma ma jël risque boobu. pap am doom nii parce que nee naa. ok pap euh, bu leen bañ a am doom. ngir ni seen situation réew daa metti dafa metti bu leen rey seen doom yi. rey ñu leen mais amuñu bugguñu. wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaq. wala jamono neexul <laughs> quand même c'est vrai. xanaa yàlla war na mën a tolérer loolu oustaz benn doom rek dafa jafe. xam nga yàlla dafa jafe dafa gérer te moom moo ne bu ngeen demee dinaa leen laaj li ma leen joxoon ngeen sàmm naka ngeen ko sàmmee. pap te jamono léegi neexatul pour sàmm xale yi. pap ba nga juddoo ba léegi ci senegal waaw mësoo fee dégg nit ko ay njabootam dee parce que amuñu luñ lekk. bah je sais min dabbatin fil ardi illa ala rizquha yàlla nee na bakkan bu xas a juddu ba wàcce ci àddina lu dëkk ba dëgër dëgër dëgër maa koy wërsëgal dana dund dana dana lekk luy sa problème ah problème bi mooy jamono neexul oustaz jamono neexul te yàlla ni maa yor ñëpp ku juddu da nga lekk xiif reyeegul kenn Sénégal gisagoo ko ay doomam dee ñu ne xiif a ko rey waa mais doom yu bari moom nag oustaz àndul ak jamono bii nag oustaz pour lan ci ban façon waaw yow yow comme loolu nga gis amal ay doom yu bëri mais man digal digalum dig na ma yàlla baal digaluma ko kenn les temps sont durs oustaz jamono neexul mais 10 doom 15 quand même loolu mag ñi ñoo ko mënoon man des fois dama naan sama ñoom pap naka la ñu def ba yar seen ay doom. te suñu ñu yor ñaar wala ñett rek ñu ngi souffrir. pap ñuy jamono. quand même benn rek boo ko amee. ci souffre quoi pap suñuy jamono te sama ñoom sa pap suñu kër comme daara. ñun daanaka 35 la ñu. dëgg la mag loolu mag ñi ñoo ko mën paa yi <laughs> daan am ay 15 doom. pap man suñu waa kër yi comme ay seex. pap moo tax tabaski kër gi doo am foo toog yooyu man munu ma ko de barki sëriñ tubaab digaale wu ma ko sax ak yàlla. jamono neexul tabaski suñu kër doo am place day mel ni ngénte da ngay foog ni ñii paa bi dëkk ci kër gi dafa invité fekk invité doom yee ñëw <laughs> ñoom Karim ñoom Balla <laughs> ñoom Ndeye Koura biso am naa ba am biso suñu kër amaat mbay xaw ma leen di xàmmeewee sax doom yi bu ñu bëree loolu dafa metti de da ngay am deux mu metti les temps sont dur mais quand di bàyyi xel ci li suñu borom wax quand wax nga dëgg oustaz. waa Pape parce que yàlla dafa. Ah. yàlla yàlla Pape lu mu wax am na raison. bañ a bañ a jur doom ngir ragal ñàkk mm-hmm. sunu borom daf koo tere mm-hmm. jamono lu mu naqari naqari ki yàlla dénk boroom kër muy sëy mm-hmm. fàggu leen pour am njaboot te souvent xaw ma xaw ma ndax def ngeen constat boobu ki amul wala ki mënul suñu borom da koy may mu njaboot waaw parce yàlla moo yor ñëpp pap beneen bi ci des mooy ñàkk alal teewul yàlla may la doom am na ku la mm. ëpp alal yow ay milliards mm, d'accord lu mu xam def na ko d'accord am na ñoo xam ne dañuy dem sax naan est-ce que mën nañoo jël sama lii boole kook bu ndaw si ah. dugal ko ci ay verre nangam ak nangam pour xale bi juddu ah, ah. yooyu yëpp pour bëgg doom mm. doom yàlla moo koy joxe loo njaboot njaboot sa njaboot gi yàllaa leen yor. parce que des fois man dama naan yàlla tamit dafa mel ni ñii ñii ñàkk daf leen di beral loxo ci wàllu wasin. mi ngi noonu dañuy am doom sa wërsëg hmm. nekkul ci loxo yi kenn ku dul loxo yàlla. danoo doome <laughs> dëgg la ñun aji ñàkk ji dañuy bëri doom te boo demee kër patron yi seen kër yi day ngand nga fekk fa ñaari xale. <laughs> ku nekk ak ta ta parce que parce que ku nekk ak va dem leen ngeen foofu ci biti parce que xajuñu ci chambre xajuñu ci chambre yi ci ëtt bi lañ daal fanaan sama papa bu amee ñaari gën ñun ñëpp ñu laal lipiko yeeg matlaay <laughs> mais kër patron yi am xaalis ah, Djibril tu retournes dans ta chambre Djibril xoola ànd ak benn petite sœur am Mariam Mariam Mariam tu fais la sieste Mariam dans ta chambre waaye ñun dañu daan wax dem leen ngeen foow yi parce que ci mbedd bi la ñuy xaj doy na rek bu ko doom bu nu bëri. donc Pape Noël bu jotee bu ñu la jëndalee cadeau sax dañ koy aj ci kaw armoire bi. donc Pape pauvre baaxul. donc Pape. mais waxal pauvre yi bu ñu am doom waayu saas. pauvre du bëri doom Pape yàlla moo santaane takkante. jurante njaboot ndax bu ëllëgee yonent bi day tiitaru ci kanamu yonent yëpp ni leen sama xeet moo ëpp seen xeet mhm. te njaboot gi lu ñu yaatu yaatu yàlla moo yor seen wërsëg parce que am na ci kër yoo xamante ni ñi njëkk ñi njëkk a tëdd dañ leen di yee yenn saa yi di leen jóg leen ngeen may ñi mujjee tëdd <laughs> ndax njaboot loolu yow bu fekk am na fi am na fi de ñi njëkk a tëdd ñi njëkk tëdd dañ leen di yee ne leen may leen ñi mujjee tëdd ñoom it ñu noppalu tuuti mais Pape ñëwut basang yu mag yi rek <laughs> basang yu rëy yi ma gis ci daayira yi duma ci wut ñaar lal mu lalee ku ne ku ne bàyyeeku fenn. nga tëral ñëpp mais daal ay planning ak yooyu. baaxul noonu mais ah. Euh, point bi bëggoon nañ cee gën a gën a yaatal ndax des na des na huit point waaye waxtu bi moo ñu njat mm. xam naa ñu ñu ñu ñu ñu ñu pointé ko ok ok ba jeudi incha ñu dem ci question yi incha allah incha allah d' accord donc soxna Kya moo ñuy waaj a rejoindre léegi nii ci plateau bi je laisse équipes ñu installé ko bu ko defee mu ànd ak euh, internautes yi en attendant ñu vérifier waat fu ngeen toll ci woote yi dañu am ay enveloppe yu duun yoo xam ni moom la ñuy joxee fii ba keroog ñu tàggatoo ak yéen numéro téléphone yi jarul sax ñu leen koy fàttali mu ngi affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi benn par benn 88 660 628 65 65 voilà lii itam numéro bu baax la bu amee ñu nekk ci ligne bi léegi nii ñu jël leen je précise encore que ngeen jot ñu en direct ak ngeen ñàkk ñoo jot bu ngeen xasee ba composé benn ci numéro de téléphone yi mën ngeen euh, bokk ci ñi nga xamee ni dañuy am chance suk ñu may leen ci enveloppe yi 150 000 200 000 on vous offre tout ça fi ba keroog ñuy jeexal jotaay bile Mbaye Diouf ah ça c'est le c'est le c'est le jeune c'est le jeune c'est le jeune c'est le jeune caméraman Mbaye voilà nee na oustaz oustaz ah comme noonu nga gisee nañu jur rek <laughs> moom nee na ëmbalatul <laughs> ndax nee na ay salaire léegi day yéex a ñëw <laughs> ma ne ko yàlla baax na yàlla waxul kenn dara ale qui sera le prochain téléspectateur wala ñan ñooy duggaat léegi balaa kii a di joxe question yi nga xamante ni yéen nga ñu koy yónnee euh, ci compte am ci réseau sociaux yi 88 676 06 06 allo mën naa maye léegi ni benn iPhone 15 Pro Max bi bu baax bi la Oustaz Modou Fall moom la am man bu yàgg bi laa yor iPhone <laughs> bi mooy bi ñuy lem ak lemarti mooy fold fold 5. mais Pape voilà Galaxy Z fold 5. mais Pape na 15 bi dañ cee war a am de. Ah, ah yàlla baax na man maa ngi nii yi may maye yëpp aw ma ci. yow téléphone bi mujjee génn nga war di yor. yi may maye yëpp aw ma ci man fi mu ne nii kuy kuy kuy reeree forox caaye de temps en temps palaatu ndambe bu téeméer ak ñeent fukk xaw ma téeméer ak ñaar fukk kooku bu la nee amul 15 pro max gëm ko waaye yàlla waxul kenn dara am na ñoo xamante ni yàlla mënuloo na leen. <laughs> fa tabaarakallaahu <laughs> ñooñu mën nañ ci mañ man 15 pro max <laughs> Pape Cissé Pape Cissé daan na ko def ak man benn grand mais taay benn grand dafa mel ni lu banque aussi taay dafa banque de. temps mu ngi jaabante rek day jaabante te tubaab la xoolee dimanche ay kilot lay sol te mooy suñu directeur. <laughs> mais kilote yu gàtt naa mooy booy. ah mais bii rek ne <clears throat> bi waaxu banque la. mais mais mais mais Pape Pape jeudi. <laughs> iPhone laa bëgg a maye waaw vas-y jeudi bi passé nag. Pape Cissé jox na ma xaalis bu bari. damaa gàtt xel rek man ci jox ma la dëkk. joxoon na la <laughs> dama koy ñëgal. jeudi bi passé la woon. damaa bëgg mu ñëg. tey la waat jeudi. tey la ma joxoon jeex na damaa bëgg mu ñëkk. est-ce que du lay joxe. xam naa dinañ ne ñaar ñii wayaan rek lañu ñu nekkee ci télé bi ñoo tey dégg nga. ay nit lañu comme yéen duñu wàlliw duñu xut bu samaan duñu milliardaire ŋàppaaral nañu topp télé bi ba fajar xam nga ni ku ñu ku ku ñu ku ñu ci may nga jël ba damaale sa baaraam yi allez 15 Pro Max ci téléphone bi c'est cadeaux c'est pour ay enveloppe yoo xamante ni bu ci nekk def na lu duun cent cinquante mille deux cent mille wala sax cinq cent mille en attendant dimanche après-midi may amal grand maye bi ci télévision Futur Média qui sera le prochain téléspectateur kan mooy duggaat léegi nii ñu euh, teral ko allo allo allo allo pendant que ngeen di woote Kia mu ngi jël seen ay question ci euh, compte yi nga xamante ne am nañu ko ci réseaux sociaux yi di euh, bégee bu baax. staff bu Grand Bal sama gars yi ñu ngi may bind rek ñu ngi ci répétition Youssou Ndour yi xam naa le 6 moom faaw nu baale incha allah oustaz ñaanaloo Youssou Ndour bu baax pour baalam baalam bi réussir. ñaanal ko mu réussir baal baal bi wallaay defal defal defal defal ñaan ci grand bal bi ma bëgg nga ñaan bu ko defee grand bal bi incha allah samedi ca esplanade grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose dama lay ñaan nga def ñaan pour pour bal bi pour Youssou am ndam ci grand baal bi dafa ñaan rek. <laughs> ah moom personnellement de ñu ngi koy ñaanal. mais doo ñaanal ay musique <laughs> moom daal yàlla na ko yàlla may gudd fan. amin amin <laughs> mais la ca des xamuloo ko quoi doo ci commentaire amul problème. ayca 88 676 06 06 kuy duggaat ma jox ko gaaw balaa kii yaa di ñu jox li nga xamee ni moo jëm ci question yi ngeen ñu yónnee sànq ba tey. na woote yi gaaw 88 628 22 22 ma ndokkeel nag bu baax madame Mbacke imam ami Mbacke imam Mbacke Mbacke ñaari yoon ami Mbacke mu euh, Serigne Mamour Mbacke ibnu Serigne Modou sa Dieng mu euh, soxna Awa Gadiaga ami Mbacke ma ngi ñu fekkoon ministère des affaires étrangères mu ngi koy ziar bu baax a baax a baax mun naa màkk nag maa ngi bëgg woo Eva voyage sax pour xool fu seen fu seen fu seen umre yu toll. fan yi ba mu gëjee gis rek xamal ni maa nga maa nga makkatal mu karam non Pape nag dinaa fexe nam naa sama dëkk ba euh, Pape nag Pape namuloo namuloo sama sama armal. waaw sama armal bu weex rek <laughs> ah namu leen sama armal. sa daw safaak marwa sama dawu safaak marwa rek. ah, ah sama taxawaayu ah, non pas taxawaayu Arafat mais sama sama sama jaabante diggante ah, diggante Uhud. sa tawaaf sama tawaaf rek nam mu ngeen sama tawaaf. sa dem biiru ngeen sama taxawaay biiru Ali. sa yéene. nam ngeen sama labayka laaw ma labayka. ak dama koy mbaar labayka laaw ma labayka labayka laa sharika laka labayk indal hamda wa nixmata lakul mulk. laa sharika lakk nangu leen sama armari ah, ah maa ngi ñaan suñu borom balaa alxamis bii di ñëw euh, mais Pape Eva voyage woo ma ne ma dat sàngam ngay dem makkatal mukaram gëj naa fa Pape bu la Eva voyage woowul sax gëj naa fa bu la Eva voyage woowul gëj naa fa danaa woo kenn ci sama xarit yi waaw yow koo mosoo woo woo nga ko keroog bi nga ma ne Assis Ndiaye suba 13h midi cinquante nga ma woo kon boo ma waxee lii ma gëm ko euh, Pape réew mi nag hmm. yàllaa dogal ñi fi yàlla dénk teraanga ñu ci bari samay xarit lañ. amu leen sama armal. danaa fexe danaa fexe ñu yóbbu la nga ziyaare ji yonent bi. sallallahu ziyaare ji waat encore il nga fàttali leen ni du fu may gëj nag at bu jot daanaka ma dem teraanga àddina ba mais man ni wàcc bees kuy doog a dem dem naa fa demati fa damaa bëgg a dellu soyons clair <laughs> incha allah. xaaral ma limal la ñi nga xam ne moom bu ma leen woowee dinañ la jox bee maag. demal. Adja Marème Faye Sall. Eh, kooko ci gaaw daan na ma jox may joxe man ñu genn wàll gi ma yóbbu yëpp moo ma ko may. le ministre Antoine Diome. eh waa jaa googu moom business class la lay dugal xam nga man nag sama tukki dafa jafe. ab <laughs> Ablaye ngal gu eh waa jaa googu ma bëgg Sidi Hadj Malick ma nga Tiwaawan monsieur le maire laa ko tudde Elimane Lam ma ko ci boole léegi daa change. ndé mais mu man nag kookoy sama président man benn directeur laa am Elimane Lam la tudd benn sponsor laa am Doro Gaye la tudd àggali la. Aziz Ndiaye. Malamine Fatim Bakary. ba mu takkee ñaareel ba léegi. nay gu méttee méttee méttee ko dugg. ay saa koy influencé ay <laughs> sa ci jamono ci jamono lay dox dafa dëkk jamono. dama daan gis nit takk ñaareel gën a tàlli. ay <laughs> fa takk ñaareel téye yëfam. takk ñaareel gën a nay ci àddina bi. may ànd ak moom lu ma la wax féere la. gëm naa gën a nay léegi. Aïssa moo koy man lii jaaxal na ma. Aïssa koy influencé mais ñii ma la wax nii Pape. Uh-huh. il faut ñu yóbbu la mag. incha allah il faut wala wala des na sama beneen xarit. kan la kan la Alxaaji Demba Ka. Demba Ka i borom Edeka waa jàngoogu. Alxaaji Pape kooku def ak silence la boole. waaw waaw ñii ma la wax daal moom. Uh-huh. yàlla boole na ma ak ñoom te danaa fexe. Uh-huh. ba ñu yóbbu la. n'est-ce pas dem mag. non mais arrêtel oustaz <laughs> soo bëggee moo Assane man euh, dama teel a dem Màkka nag euh, en deux mille deux mille quoi deux mille dix huit deux mille dix neuf et puis yi bëri na mais fi mu ne dama bëgg a dellu nag. da nga bëgg a dellu waaw a dellu. léegi dinaa fexe ba. li ma fi bàkkaar daa barilo lool ci biir. <laughs> yi ma def yëpp. bu dul dara bu dul dara ñi ma war a yóbbu nañ ci jàpp rek. moom daal ma seetal ko tuuti daal. dinaa dinaa dinaa yëpp. Pape dinaa fexe ba ñii ma la limal daal. Eh? ci weer wii. wala président Serigne Mboup sa xarit. nee naa la xaw ma ko dama koo xam. xaw ma ko léegi man moom daa ko ci boole wala léegi. première adjointe au maire Mami Mbow. kan la xaw ma ko. Mami Mbow bu kaw xaw ma ko waaw kon baax na mën naa la yóbbu ca moom. xaw ma ko de. mooy mooy jigéenu euh, Bamba Mbow bu bu Youssou Ndour. Bamba xam nga ko moom. Bamba tam xamoo ko waaw moom tam neexul a xam de. mbaa xam nga ni jigéen bee jar a xam. Mami xaw ma ko Ndiaye am di je ne connais pas moom la seen bàyyi woyo woyoon woyu Youssou woyoon woyu bu rëy ba Amdi Bachir oo oh, yaay sama. waa léegi daal Kaolack. du xam nga woy bi. xaw ma ko Pape. waaw ok d'accord Kaolack. fa xamaat. Baye Ciss. ah Baye xam naa ko. waaw ah, Baye mais dafa am keneen ku ma xam Kaolack koo xam ni moom wóor na ma ni. Uh-huh. bu ma ko woowee suba suba. Mm-hmm. kooku moom sax. Mm-hmm. moo leen gën a efficace. kan la kooku moo Ndiaye Rahma. oh. oh woo nga sama xarit. yaa ngi waaj a tawaaf de. woo nga sama xarit. gisoo ni ma defee nii damaa baaje baaje tawaaf damaa damaa damaa tourné tourné tawaaf. barki borom Touba. moo Ndiaye Rahma. nit kaa ca kaw lax waaw suba danaa ko woo. <laughs> voilà eh, eh. ñaari bay mag. kor ina dem kon ñaar lay ñaar lay def. man ak maa ngi yow ànd maa ngi yàlla tere yàlla tere yàlla tere kon kaaba gi day ñëw dakaar bi may aj màkk dafa gëjoon taw suma premier aj naka la ñu tàmbali taxawaayu Arafat rek màkk dina ko tawal taw woo xamante ni fekk toogoon na ay xaw ma ñaata at tawul xoola ñoom papa nag Assane di ma xool rek ma jékki-jékki ne ko yow loo may xoolee mu ne ma xamoon naa ne boo ñëwee màkk <laughs> màkk day taw. keroog màkk am na gan. wallaay màkk am na gan. <laughs> ñu jékki-jékki rek màkk di taw. bisu taxawaayu Arafat maa ngi jóge ci suñu dal di dem ci Arafat xam nga damaa ëppal. Hmm. foo taxaw Arafat la. waaye man damaa bëggoon a yéeg ci kaw montagne bi. taw bi jëkk jékki rek sóob taw a ñun ñëpp ñu tudd yàlla mais bi ma asan xoolee ba seppali ma. ma ne ko yow nga may xoolee te man lu ma nit xalaatal dama koy xam télé bu fay sax xam naa ni daw ci biir oustaz oustaz Assane seek xool na ma benn regard boo xam ni dama ko xool ni ko yow lan la mun na ma yow xamoon naa ni sa premier at. màkk day taw taw taw fi gëj a taw <laughs> yàlla na ñëpp am jàmm kuy dégg màkk te bëgg fa dem yàlla na nga fa dem amiin incha allah ku bëgg aj yàlla na suñu borom dimbali la amiin du am am u quoi que suñu borom rek moo la koy wërsëgale amiin yaa yooyu yëpp ci ay bonus la ci la voilà ay bonus la rek donc yàlla na suñu borom boole ñu amiin euh, ci ñi nga xam ne ni euh, dañuy dem saa yu leen neexee euh, ca dëkk bu sell boobu lañ donc numéro téléphone yi ba tey maa ngi koy xaar pour jox leen seen ay enveloppe yi ñu leen di dimbalee tey ci guddi gi ku ci nekk bëgg nañu mu fanaanook enveloppe bu duun bëgg nañu ngeen fanaanoo cent mille cent cinquante mille wala deux cent mille en attendant Kia ñu ngi lay nuyu sànq ba tey yaa ngi en contact direct ak internet yi nga xamante dañoo ànd ak ñun euh, ci hashtag bii di midi plus. effectivement El Hadj Pape ñu lay nuyu di la ziar ci li nga xamante ne moom mooy guddi aajuma bi di nuyu Oustaz di ko ziar bu baax di ko wax ne sañse bi rafet na lool tey Oustaz. <laughs> jërëjëf ni nga dalloo 2024 bi moom macha allah. Ah, te léegi dafa am fit ay tissus yu cher lay sol. <laughs> waaw yoo xamante ne amuñu lu ñu lekk. ay nit yoo xamante ni dañoo feebar amuñu lu leen faj ay nit yoo xamante ni mu koñam mënuñoo fay lu yaas da leen di romb ak oto bu cher wàcc sol yére bu cher génn ci tele bi di leen kookale yàlla baax na. yàlla baax na waaw ah. yàlla baax na El Hadj Pape di souhaiter téléspectateur téléspectateur télévision Futurs Médias ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo internet yi leen souhaiter bonne et heureuse année. Mm-hmm. di ko souhaiter képp koo xamante ne mu ngi suivre groupe Futurs Médias ci euh, soit ci nga xamante ne mooy suñu entité yi wala suñu plateforme digitale yi. comme chaque euh, émission El Hadj jël nañ li nga xamante ne moom mooy question yi ci euh, suñu plateforme digitale ak hashtag Midi Plus bi fas yéene koo jébal Oustaz mu wax ñu li nga xamante ne moom mooy xam-xamam. mu ngoog donc première question bi la ñuy def léegi nii ak sunu xarit ci Kia. alors Oustaz kii nag moom nee na. dafa am magam bu góor boo xamante ne yàlla daf ko cëralee maanaam daf ko may alal. Mm-hmm. mais très souvent daf koy interpeller ci li nga xamante ne moom mooy euh, génne asaka. Mm-hmm. mais euh, frère am bi à chaque fois daf naan ko dinaa ko def dinaa ko def mu bëggoon xam loolu lislaam lan la ci àtte saas jërëjëf ki ci laaj bu am solo bi xam nga alaaj pap azaka su ko borom alal bi moomoon yàlla du ko sant pour mu génnee ko mais azaka ki borom alal ji moomu ko dafa bokk ci xaalis bi ko yàlla dénk ni ko boo ko dencee at ba at mi dellu am na seeni borom jox leen ko yow boo xamul sëriñ bu dégg nga turam yaa sëriñ bu ba léegi <laughs> am soq ko boo xamul sëriñ buub dégg nga sëriñ buub CCBM demal man su ma naan xam mooy ñi ma amal relation. waaw mais yow yow yow yow oustaz yow ah. man ñooñu laa jàpp ni xam naa leen yow da nga métti yow yow yow xam nga léegi lu may fàttali temps bi ngay doog a jógee Italie da doon kii rek di wax ay affaire rek di wax ay affaire rek am na jour boo xam dama la mere non yow dangay wax ay affaire rek mais yow mos nga dégg turu Serigne Mboub. jël. Mbaa du juif la wala yow. waaw fa tabaarakallaahu àggalil baal ma waa baal ma baal ma waa incha allah dinaa noppi. Serigne Mboup mooy meeru Kaolack. waaw waaw nga di xamoo Serigne Mboup. miinu ko. te man maa toog sëriñ maa dem Kaolack barki borom Touba Serigne xëcc ma ne ma Pape nuyu ma Modou Fall daara xaw ma kan. bu daara sëriñ xaw ma lan. ñun ñoo bokkoon daara boobu lii sëriñ boobu gémmiñam ak sama nopp. wax na ma ko waaw léegi tey lu tax nga toog télé bi ndax. damaa dajeeg moom ci dëju papay Antoine. mu nuyu ma. waaw ne ma na nga def nga xamoo ma. ma ko xaw ma la. ni ngay def ba ma xam la xam nga ko xaw ma la. ah ok waaw waaw waaw waaw waaw léegi kon fa tabaarakallaahu àggaleel. leer boobu ba léegi wax naa ko. waaw loolu. chaque jour ma xaar wéefu 2 millions wala 5 millions du ko gis. Eh, doo yegg foofu nag de. Pape man réew mi kon moom fi sañ may lu dul 1 million mbaa mbaa millions. kan moo am fitam boo àggale àggale te day xëbali Pape yow ku ma sañ ku ma sañ a may loolu day xëbali yow tam man tey maa commencé def loolu ku ma sañ a may sama xarit yi ma yàlla booleel yëpp ñu may defal ay teranga deux trois cinq mais da ni kon ku ma am na ku ma may cinquante mille dama koy bañ a tudd barki démb. allahu ki ma may cinquante mille mi ngi sol costume boo xam ne. safullah safullah fa ma ko fekk ci ville. mu jëlee ma ci restaurant bi ma doon ndékkee ni ma nañ jaar bureau. sama secrétaire bi sa soppe dafay dafay xëbale de amul ay teraanga kenn du ko xeeb yooyu li muy def ni c'est tellement rigolo dafay tiitalaate en fait. <laughs> cinquante mille. ku ma sañ a may loolu <laughs> loolu dafa neex naa ko def léegi mami Mbow da nga maa sañ a yónnee <laughs> je peux même ñu def Ami Dieng. dañ koo tuddee fii dara Amérique la nekk sànq la ma woon ne ma te ñun ñaar noo bëgg xaalis ne ma damaa bëgg suba nga dem représenté ma ci raaya musique bi ma ne ko waa seetal loo teg sama loxo rek. ñun da est-ce que duñu ay bandi boo demee ay bandi lañu. li pas yi di wax bu ñu la meree bandi solo mais alaaj pap est-ce que duma bandi. alaaj Pape Fall yaay bandi <laughs> non Fall yaay bandi. allez ngeen baal ma alaaj Pape waaw ayca nag. sunu sunu soppe la. wallaahi sunu xarit la. di ko yàlla tegee Kaolack. Mm-hmm. gis nga liggéey bu rafet ba mu fay def. wallaahi wallaahi beneen bi ci des mooy ñun dong daara yi li tax ñu fan ko. Mm-hmm. mooy daa bokk ci ñun. wa wa wa self dafa bokk ci ñun. Mm-hmm. moom dafa bokk ci ñun ñi ñuy supporter parce que nitu daara la. wallaahi génnee ci daara imposer boppam. doon ki mu doon. doon ki mu doon. te mën naa dégg sax président de la république. waaw yàlla na ko ko yàlla defal. allahumma amiin ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. allahumma amiin. Kia. question bu njëkk bi Azaka. Azaka waaw. léegi pap azaka boroom xaalis bi moomu ko hmm. yàlla da ko ni alal ji ma la dénk hmm. Pape Cheikh Diallo dénk naa la un million amin waaye hmm. am naa yi ma daan dénk doon ma koo dénkatul fan nga denc un million bi at ba at mi dellusi yàlla ni la comme un million bi mat na at eh. léegi Pape Cheikh Diallo un million bi eh. yow yaa ngi ci moom neuf cent neuf cent soixante quinze mille. waaw moom nga moom ci xaalis bi. Ah, moom moo un million bi yëpp. moomatoo ko. ci kaw ma denc ko quoi. saa yoo dencee un million at ba at mi dellu si yàlla nee na moomatoo lépp. Eh. vingt cinq mille yi danga koy génnee jox ko seen borom. chaque ci at mi yëpp ah? waaw ok léegi nag nga ni yàlla. comme denc naa un million at ba at mi dellu si. Eh. te ci ci wàllu azaka. un million bu nekk vingt cinq mille lañ ciy génnee azaka. léegi damaa bëggoon yàlla nga wax ma vingt cinq mille yi su ma ko génnee ci yan loxo laa koy teg yàlla di la limal innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakina wal amilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi riqaabi wal gaarimina wa fi sabilillahi ibnu sabil yàlla nee na boo génnee un boo génnee vingt cinq mille yi muy azaka nga xool ñi ko yeyoo pour nga jox leen ko mais yomb na yàlla nag vingt cinq mille ci million quand mu ngi noonu. waaw kon asaka méttiwul. waaw méttiwul. imaginez 2 millions boo ko dencoon cinquante mille ngay génnee 2 millions bu nekk cinquante mille moo ciy génn asaka kiya 4 boo ko dencoon 100 mille francs mooy moo ciy génn asaka. Mm-hmm. boo dencoon 8 millions. Mm-hmm. par exemple deux 200 mille moo ciy génn asaka. Mm-hmm. kon méttiwul. léegi nag yàlla ni la jox ko ku pauvre. dégg bi. Mm. koo xam ni pap amul lum añee amul lum reere te bëri fi amul lum ndékkee bëri nañ fi de ñàkka ñàkk ñàkk a ñàkk ba desit lay lekk bëri nañ fi de kooku boo ko gisee jox ko ko yàlla nee na soo gisul kooku am na beneen façon pauvre boo xam ni dina am añ mais yenn saa yi day am problème reer bëri na fi aussi am na ñoo xam ne seen lépp complet wul mën nañu xëy am ndékki am añ mais du ñu am reer am koo xam ni mën na am ndékki am am añ mais du am reer am kuy am reer am añ te du am ndékki am ñu mën a suturaal seen bopp du ñu yor dara mais dañuy mel ni man rek c'est ça le problème mm-hmm. léegi nag yàlla nee kooku ci way ñàkk ñi la bokk mm-hmm. yàlla nee na am na koo xam ni prisonnier bu ñuy doog a la mm-hmm. mu génn tumuranke ci dëkk bi xamu fi kenn boo ko gisee jox ko ko am na koo xamante ni bi itam dafa ñëw nekk étranger ci dëkk bi amu fi mbokk yor ay bagage am di laajte fu mu mën a fanaan di tëdd ci garage yeeg fu nekk mhm. nga gis ko jox ko ko mhm. parce que soxla na ko da mhm. ñii ñëpp yàlla nee na koo ci gis génnee ko jox ko ko bu ndax li ngay génnee moomatoo ko ñoom ñoo ko moom léegi yow nga denc alal yàlla génnee loola ci som bu ndew som bu ndaw bii nga ni doo ko génnee te pap azaka dafay tax yàlla yokk say tiyaaba xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim mhm. yàlla nee na dee leen jël ci seen alal mhm. di ko jox ñi nga xam ni ñoom ñoo ko moom ngeen leen koy dimbalee mhm. dañu wax ni nag ci boroom xam-xam yi li gën mooy azaka su baree soo koy génnee au lieu que nga jox ko mbooloo nga jox ko benn nit mu jëriñ ko pour mu am départ pour mu am départ xam tey pap ki génnee alalam muy onze million azaka mu teg ko à onze million bi boo ko bëggee séddale sa waa koñ yépp ku ne la ngay am yenn saa yi boo ci jëndee connexion day jeex. dëgg la yàlla nee na jëlal onze millions yi. fekk Pape Cheikh mito mi toog këram nekk pauvre deful dara. Mhm. nga jox ko onze million yi. dinaa ko soxla de <laughs> onze million pour. ko defee nag Pape Cheikh day jël onze millions yi. Mhm. wut ci départ. Mhm. tabax kantinam jëndi marchandise am commencé dem Maroc indi ay marchandise dugg ci jënd meeg njaay mi bu ko ci yàlla ubbee weer wi mu ko tàmbali moom Pape Cheikh bu bu déwénee day bokk ci ñuy génnee azaka macha allah moom itam def même chose social boobu la yàlla bëgg ci ah, jullit ñi d'accord ci ni nga ko jàngalee merci ci ni nga ko jàngalee on comprend mieux là. loolu la yàlla bëgg. léegi bu déwee ne Pape Cheikh mi ñu dimbali woon. Mm. day dimbali Oustaz Modou Fall. Mm. Oustaz Modou Fall góorgóorlu moom itam ci li ko Pape Cheikh jox bu di bu déwee mu jox kiyaa wala mu jox buuba wala mu jox keneen. yàlla dafa baax su ko defee nag yàlla nee na. Mm-hmm. su ngeen ko respecté te def ci yitte. Mm-hmm. dana dem ba ñàkk jeex ci dëkk bi. Mm-hmm. kon kooku li ñu koy dénk mooy azaka. yàlla moo ko sant jullit bi te dafa bokk ci kenoy lislaam mhm. te lu bokk ci kenoy lislaam jullit daf koo war a fonk wallahu taala an mu ngoog loolu mooy question bu njëkk bi réponse bi defe naa leer na en même temps woote leen euh, ku ci jot en direct ou pas dinañ la jox euh, euh, enveloppe boo fanaanoo wala ngeen bokk ci tirage dimanche bi ak grelot yi soxna ki a alors Oustaz kii nag moom ñu jàll ci li nga xamante ne moom mooy deuxième question bi kii nag moom Oustaz dafay laajte ndax gàllaaj am na ci lislaam exemple bi mu joxe moom mooy def ne temps yi dafa seetlu ko mbër ñi nga xamante mbër yi nga xamante ne dañuy faral di utiliser gàllaaj yu bari daf ci am mbër yoo xamante ne duñu utiliser gàllaaj mais yàlla da leen di may ndam muy laajte nax lislaam gàllaaj am na ci oustaz. man de fi nga damaa takk ba fees. jëf bu ma romb mu toj. maa takk fii ba xolo làmba maa takk fii ba fii gis nga di mu bëree. lii la <laughs> damaa takku ba ba ba naka la ko xale yi di waxee ba mel ni naanaa. yaa ngi ah. ñaan de am na. waaye bi yàlla di site ñaan. yi ñu xewal yépp bokk ci woon. waaye ñaan moom am na te jullit am na droit ñaan lu ci yàlla. boo déggee yonent bi ni woon falaxeeg naa si mu tey ni ñaari muslaay la yuy musal jullit bi ci bépp musiba ci cat ci làmmiñ ci bët ci njabarkat ci ku soxor lépp yàlla da koo dëxëñ ci alquran bi mhm. te li ma gëm mooy kuy ñaanlu ku nekk ci yi ngay ñaanlu mhm. mooy yàlla musal la ci gàllankooru àddina yi mhm. musal la ci bët ci musal la ci làmmiñ musal la ci ndogal yii yëpp pap yàlla da koo dugal ci qul a'uzu bi rabbil falaq mu nekk ñaari saar yoo xam ni ñaan la bu fekkee yow jullit bi nag façon boobu ngay ñaanee sharia nangu na ko muy ñaan waaye façon bi lislaam nanguwul mooy kuy rendi te rendi woo la ngay rendi ngir yàlla hmm. tuur deret dangaa ñëw ci société bi ñu ne la boo bëggee teg tànk ñi fi nekk ñëpp nga nekk ca kaw wutal bëy bu weex eh <laughs> reyal rendi ci buntu TFM nga jéggi. léegi rendi boobu ngay rendi bëy bi pour am place ci TFM charia nee na rendi woo ko te yàlla tax dafa xaraam bàkkaar nga ciy am. dëgg de yenn saa da ngay dem ci entreprise yi yenn yi boo duggee ci couloir yi day xeeñ ay gàllaaj. day xeeñ ay saafara day xeeñ xet boo xamante ni daf lay leer ni lii ay xetu gàllaaj la. mi ngi noonu. Oh, léegi nag imma nag bu fekkee alquran ngay jëfandikoo. Hmm. parce que alquran dafa am doole. Hmm. mboolem gàllaaci yi ñuy tudd yëpp alquran moo ko ëpp doole. mag ñi yàlla da leen mayoon xam-xam ñu am ubbeeku ci wàllu yàlla. Ah ba seen kurus luñ ci bëgg a def dañ ko ciy def. dëgg daan seeti mag fekk ko ci pénc. ñëw ni ko ñaanal ma mu jël kurusam. def la muy def yenn saa yi kurus sax lay xooj jox la ne la naanal sa aajo faj. am ñoo xam ne bu ñu la téyelee kurus. yàgg ci kurus gi di la ñaanal yàlla wuy si leen. Mm-hmm. am ñoo xam ne alquran la lañuy jëfandikoo parce que yàlla moo wax ni maa farratna fil kitaabi min shay'in alquran bàyyiwul dara lépp mi ngi ci alquran mm-hmm. nga ñëw ci nit mën na la falaxeeg naa si bind ko soixante-dix fois mm. secret la ci falaxeeg naa si bind ci nangam mm. sec douze fois secret falaxeeg naa si la mm. euh, trois cent treize ayatul kursi yu mm-hmm. bind ko baax na mm-hmm. quarante et un yu ñu bind bu billaahi yaasin dañ ma koy jàngal. baax baax baax na ci ragal a def ful. faatihatul kitaab. Eh. bu ñu booleeg wa in yakaadu alladina kafaru. Mhm. aaya la pour wàllu cat ak secret yu mel noonu. loolu meew meew la bu ñu suukaree lem ak suukar plus bi loolu dafa fort. waaw. Hmm. wëttiini. wëzeytuuni bu fort baa wëttiini wëzeytuuni man xaw ma yàlla fan la créé saaram bi dafa neex. wa zeytuuni wa tabaarakallaahu ñu bindal la ko li tam maanaam saar yi tàmbalee wattiini boobu akara la ba ñu bindal la lépp hmm? solution li ilaafi xurayshin nga di ko jàng <laughs> borom miiri barki Sëriñ Tuubaa nga di ko jàng huit fois. xam nga yaa ngi dégg Serigne Cheikh Tidiane si ñaanam du joxe lu dul li ilaafi Xuraysin. wallaahi. Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh jotaayam lu muy rëy rëy bu ñuy ñaan li ilaafi Xuraysin. alfa ci bu ko defee yooyu dafay ay saar yoo xam ne dafa am ci yu muy dox. Mhm. te dagan. Ah, waaw que bul fàtte ni yaasin bii ma la wax keroog bi Seydina Muhammad di génn moom la ko yàlla tariloo. Mhm. kon secret la. yooyu dagan na gëstu ko nga jàng ko mhm. sooy génn sa kër nga taxaw ci bunt bi ne bismillahi tawakkaltu ala allahi mhm. la hawla wala quwwata illa billahi al aliyul azim mhm. yàlla ni boo génnee ci sama kaaraange ngay nekk ba këram ngay dellu si man de damay jàpp samay génn bismillahi njambe njambe lay tag <laughs> rahmaani njambe fa moora fa be kuy njambe <laughs> man man huwa njàmbe saa yu may dugg ci télé bi damay jàpp man tariwuma yi ngay wax de bisimilah ñambe ñambe bee fenkee Famora Famora Fane. kuy ña de. ngi dégg ci gaal gi laa ko fekk mu ngi sànq boog sër benn paa moo a ko joxoon. soo doxee say soxla. <laughs> bay dugg si waat ci kër gi. nga ni yàlla bismillahi xaraj naa. <laughs> wa bismillahi walaj naa. wa ala rabbina tawakkal naa. walaj naa xaraj naa tawakkal naa. dugg ci biir kër gi. Ah. sooy dugg ci toilette bi ne allahumma inni a'uuzu bika min al xubusi wal xabaa'isi. dugg ça dépend ci ñambale bi. MSA nga am foo toll loolu doo ko tari da ngay ñëw rek fel bunt bi doo sóor sax ndax nit a ngi ci. te ay jaare yooyu demal. yi ngay wax yëpp il faut nga ànd ak sa sago pour def ko kon téye leen seen sago yi ay ñambale ñambale woo xamee ne ci taxi bi la la dalee nga defee ni nga taxaw ci buntu duus bi ay tawakaltu ala na bismillah quoi que ce soit non doo ko def nag ça dépend ci degré de ñambale hmm, may xeexayam loo ci waaj doo ko def taxaw di waaj ah, nga ne nan la saar bi sa balaa ngay dugg ci duus bi ma xool durée bi mënu ma ko de wax rek durée bi lal la <laughs> allahu allahumma ah. inni ah. audu bika ah. min alxubusi wal xabaisi <laughs> kon di nga yàq buntu duus àggaleel sooy génn nga ne xufraan nag alhamdulilah loolu yomb naa wax su boobaa moom y a pas de dugg bi il faut nga ànd ak sa sagu dëgg dëgg pour mën a léemu sa bopp laataa ngay dugg bu ko defee yooyu yëpp kii ay ñaan la yoo xam ni jullit bi daf koo wër di gëstu di ko def. waaye tey bu fekkee ñun suñu ñaan yëpp. ci beneen façon la jëm. loolu tam chari du charia du alquran. ay fa mora fa. ña. <laughs> bisimilah ñam na ñam bi maa mën a. ay bisimilah yi kap kap. <laughs> kap kap rahmaani kap yow jinne yow wëlbatil ma juróom-ñaari xolu ndaw si mu dëgmal ma. gars yi lu ne la ñuy pour xale yi nob leen. teg naa sama tàkk ci bopp bi. ah yooyu yëpp dañ koy wax. wala nga jàkkaarloog jigéen naan ko nii xol. non secret boobu dama koy bañ a. mais joxe ko joxe ko joxe ko Fall Fall joxe ko. mais Fall joxe ko léegi ma def ko kii yaa def joxe. <laughs> nan la nii da koy joxoñ wax ma nan rek. naa def waaw <laughs> ah, subhanallah boobu baaxul. su ko defee kii yaa yooyu yëpp. <laughs> Hmm. li ci gën. Hmm. mooy looy def nga teg ko ci alquran. Eh. di ñaan lu ci alquran. macha allah di muslu ci alquran. incha allah di ñaan ci alquran. Mm-hmm. parce que nag alquran moom. Mm-hmm. la yàlla waxoon. parce que yàlla solution na ci lépp. mais wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun la wax. solution na ci lépp. yàlla nee na maa wàccee alquran pour mu ah. nekk médicament bi leen di faj. wallaay mooy médicament bi ñuy faj ci tous les maladies nag. wallaahi maladies yëpp. maladies cat alquran koy ah, faj. yàlla bàyyiwul dara oustaz. maladies ñàkk. alquran koy faj. billaahi mais Pape yëg nga ni suuratul Ida waq suuratul waaqia. Hmm. Ida waqaatil waaqia. Hmm. képp kuy xëy di ko jàng doo ñàkk. benn yoon waaw. Hmm. saa yu xëy jàng ko. jàng ko sa kër yaa ngi dégg. yonent bi waxoon ni Yaasin tamit kazaalika Yaasinu lima quri'a. nee na Yaasin day jëriñ ka ko jàng. booy tëdd léemu. xam nga am na ñuy tiit guddi. di def ay cauchemar di génn gént yu garaaw. am na ñuy tiit Pape ba jub taxaw. ci kaw lal bi di xeex mel ni Zaki Zan. la de. nelaw ba quatre heures nga tëb naan. man hmm. position bi sax laa gëj a gis xam nga li ma yor. wala nga nelaw ba quatre heures nga yeewu di ree. position bi moo gën a ñàkk xorom ci position xeex yi bii bii dafa yàmbare torop quoi te noonu laa ko mënee woon. laal ma wala ngay xeexaan teel ma sama yéen laal <laughs> ma oustaz ma Kane nee na bàyyil Masila Kane bu ko ay wax képp kuy xeex naan teel ma sa yére sama yére nar ngaa dellu si waat ci jàmm yaay maa ngi xeexi bu la wóoroon ni sa bakkan dafay des doo dénkaane sa yére moo tax Pape yàlla nu yàlla defal jàmm. allahumma amiin yàlla jërëjëf Kia beneen question. allahumma amiin yàlla oustaz ayca Kia. alors eh. euh, Pape ñu terminé ci troisième question bi. kii eh. nag moom nee na oustaz. Mhm. Euh, xam jigéen maanaam xam li mu woddoo ba pare takku ko lan la ci lislaam àtte. ah dara ah xanaa <laughs> mos bàyyi wala mos dolli rek <laughs> moom it waroon naa téye boppam ba nekk ba bañ a joxe boppam avant mariage. kooku daal Kia. ah mos dolli am na am na bakkaaru ku njaaloo. Ah, parce que képp ko séq ak jigéen te alxayri jibul sa digganteeg moom. ñoom ñaan ñëpp. da ngaa njaaloo. voilà. moom. bu dee mësul am jëkkër. moom ndaw si dañ koo war a dóor téeméeri yar. ku ku góor ki bu dee mësta am jëkkër jabar dañ ko war a dóor téeméeri yar. bu dee ñun nag ñi am jabar ba parce que ñi am jëkkër am jabar njaaloo rendi mais ñun ñii comme sama genre bi. waaw ñun bu ñu njaaloowee. rey sànni ay xeer ba nu faatu. maa nga yoof ko bu ngeen ma fàtte di ñaanal ko comme yow yaa wax li ku sëy ba divorcé bu njaaloo comme man rey fi daaw leen daanaka yoof laa dëkk nii de hmm. onze xul wallaa wax te dama cee bëri ay moroom ku dëkk Yoof ngay waxal bi nga ne ku mus a am jabar ba divorcé bu njaaloo rendi mes voisins sont à Yoff astafurlah allahu akbar eh, Yoff fees na c'est vrai parce que les gens ils vivent maintenant ils font ce qu'ils veulent foog ni yàlla daa fàtte ay daanu mais ku sa am jabar ba divorcé boo njaalowee rey nañ la onze xul wala mérité naa ko ku dëkk yoof juste mooy def ak yéen émission yoof côté centre aéré bi ay waay c'est mais yàlla dafa ma yërmande nag oustaz wallahi parce que moom nee na tooj leen ma ngeen baalu ma baal leen mais ku njaaloo rey nañ la ah yow fees na de <laughs> sama xarit nee ma léegi am na sama xarit bu ma bind ne ma kii du waa yoof bi <laughs> sawla sawla ay bàyyi leen ma ma ñibbi oustaz dernière question da <laughs> nga <laughs> moo tax kiyaa. Ah? kooku gannaaw bàkkaaru njaaloo bi. sëq ak jigéen ci wàllu njaaloo. serewul boo ko waree takk mën nga koo takk. waaw que lu gën a foor njaaloo mooy mën nga am ak doom jigéen. Hmm. Euh, mu wasin hmm. nga takk ko. Ah. kon ñàkk maanaam njaaloo boobu terewu laa takk ndaw si mm-hmm. bàkkaar la rek bu dox sa diggante ak moom mm-hmm. sunu borom nga koy jéggalu mm-hmm. moom yàlla moo xam ndax bàkkaar bi dana la ko baal eh. wala du la ko baal eh. waaye daal li wér mooy moom sunu borom yërmandeem yaatu na mm. te képp ko tuub ci kanamam sellal sa tuub ni mm. wan ni ko bàkkaar bii ma def dootuma ca dellu moom yàlla yërmandeem àgg na à condition bu ca delluwaat bu ca delluwaat ndax dinaa ko baalu xam naa ca kanam mooy am na dama ala ba fajar gi teru rek bu ma lawraatee noonu ba lawraat <laughs> loolu mooy réponse bi soxna Kia. macha allah leer na El Hadj Pape ah eh. li moo nekkoon question yi nga xamante ne recueillir nañ ko. Mhm. ci suñu internet yi ci suñuy plateforme digitale yi Facebook Instagram. Mhm. Twitter bi nga xamante ne dañ koy woowee X ak li nga xamante ne moom mooy YouTube. ñu leen di wax que mën nañ continuer di envoyer li nga xamante ne moom mooy question yi. Mhm. par inbox su suñuy réseaux sociaux. ci hashtag bi Midi Plus. alors El Hadj Pape tey nag robe bi. Euh, jant beauty moom moo ci jaar. Khadija jant beauty rafet na et puis couleur yi xam nga c'est très beau. yi lay def. incha allah yi la yóbbu Côte d'Ivoire. incha allah ci vente privée boobu di Kaay ma jaay la bi ñuy amal du 16 au 21 janvier incha allah. Mm. durant CAN bi mais en attendant balaa ñuy dem ci euh, Côte d'Ivoire. man mm. ngeen a jot kooku nga xamante ne moom mooy Khadija au 77 560 69 73 xam naa ne foire bi moom dina bari ay euh, li nga xamante ne ñoom ñooy exposé parce que ki ma jaar ci bijoux yi tey. Mm-hmm. muy nga xamante ne moom mooy di dina fa euh, en attendant elle aussi mën ngeen koo joindre ci li nga xamante ne moom mooy 78 634 14 80 wala ngeen fekk foofu nga xamante ne moom mooy euh, cité kër góor gi mm. côté li nga xamante ne moom mooy Mambia bi mm. El Hadj Pape di la jox rendez jeudi prochain incha allah mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax soxna kii je rappelle que mën ngeen ko fekk ci suñu site internet www.igfm.sn ak ay entretiens yu am solo euh, sinon jeudi soir ñu dellu soit ak moom muy taataan seen ay questions yi ngeen ñu yónnee ci hashtag bi di euh, midi plus merci beaucoup Kia donc sañse yi mu def bu ngeen demee fi ñu koy defee collection Kia la. voilà c'est la collection Kia euh, yaa Oustaz ñu tàggatoo ak téléspectateurs yi euh, bàyyi leen ak li des ci euh, programme bi bu dee yéen a ngi ànd ak ñun bëgg nañu di ndokkeel bu baax naaru al Bamba yaayu Cheikh Bamba kooku mooy Khady al Bamba Khady ñu ngi koy ziar bu baax di ko ndokkeel et puis ak fu ngeen mënti nekk merci ci cofeel geek ñi ngeen ànd ak télévision <coughs> Futurs Médias première télé fii ci Sénégal yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm di la sant et puis di ndokkeel bu baax sunu benn benn soppe Oustaz euh, tur bi lay seet léegi nii euh, jox la ko mais ñu bàyyi la ko tàkkoon parce que réer na ba. jërëjëf dama ko làqoon fu yàq yeggul. <laughs> koo xam ni daal damaa bëgg Moustapha Cissé. Moustapha Cissé il ñu taxaw def taxaw seetlu ci moom. waaw waaw Moustapha nit ku kenn gënul la. mi ngi noonu Pape Moustapha Cissé nekk nit ku baax. di sët ci Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Mm-hmm. wuy juróom soxna setu Ñas mhm. doom la ci Maulana Cheikh Ibrahima Ñas kon Moustapha setu sëtu Maulana Cheikh Ibrahima Ñas la mhm. waaye nag alaaji Pape muy nit ku baax mhm. ñuy defal wuy juróom wu tedd wii di soxna Aysa Ñas ñu di ko wax soxna Ayda Ñas bis bi nga xam ne ñi ngi ko jagleel soxna astu jànqe mi nga xam ne muy wuy juru Maulana Cheikh Ibrahima Niass maamam la soxna Aïda moom bis boobu nag Pape nekk le 13 janvier le 13 janvier incha allahu rabbi ñu di ko waajal àddina bi yëpp di ko waajal muy bis bii alaaj Pape mm-hmm. Moustapha Cissé nag nekk jàmbaar mm-hmm. nekk koo xam ni dafa bokk ci jàmbaari Kaolack mm-hmm. nekk koo xam ni dafay def social bu rëy ci réew mi waaye alaaji Pape nekk koo xam ni guddi guddi Kaolack bëgg kër maamam jeex takk ci njabootu Maulana Cheikh Ibrahima Niass waaye fonk wuy juróom lool mën a def lu baax lool réew mi tey bari na daara yi alquran yoo xam ni teraangaam du fa jug mu am taxawaay bisam bii nag mu fonk ko lool di ci woo àddina bi yëpp invité la ci yow Pape Cheikh incha allah ñuy nekk nit ku baax moom Moustapha Cissé mhm. wax dëgg yàlla Moustapha Cissé euh, ñu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal ndam ci bisu way juróom bii bis bii nag pap képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah rek mm-hmm. video bii boo ko gisee mooy sa carte invitation macha allah le 13 janvier lay doon le 13 ñu dem Kaolack incha allahu rabbi xam naa bu ñu demee nag euh, euh, nanu xool rek dañuy seeti Serigne Mboup mënta ñàkk ñu jógee kër Serigne Mboup dem kër Modou Ndiaye Rahma mënta ñàkk buñ jógee kër Modou Ndiaye Rahma dem ci euh, euh, Baye Ciss mi ngi noonu bu ñu jógee ci Baye Ciss dëgg-dëgg euh, dëgg-dëgg dem seeti Ndiaye am di Bachir mi ngi noonu mi Mbow Alaaji Pape mi mi nga xam ne neexal fika bi foiru Serigne Mboup bi bu ñu fa jógee nag dem ci Maître Nafissatou Diop notaire bi mu ngi noonu bu ñu fa jógee nag am na nu muy demee nag parce que Mimi Touré waa Kaolack la nga ni lan ñu ñu seeti Mimi Touré moom sama xarit la mais bu ñu fa jógee nag dañuy dem côté Ndofane fi Pape Djibril Fall dëkkee maa ngi xaar ba nga xool ma xoolu dew ma de ndax yaa Pape Djibril Fall yéen a bokk TFM bi waxal dafa lay jaxaseeg àddina président Pape Djibril Fall il faut que ñu seeti ko. man Fatick laa jëm dëkku Macky Sall. wala soriwul foofu foofu sax la gën a jege. man foofu laa jëm. Pape Djibril Fall waa Caajaay la. Fatick laa jëm. waaw après ñu jaar Caajaay. Fatick direct. mais bu ñuy bu ñuy jógee kër Macky ñu jaar Caajaay. sama oto gasoil bi ci ne Fatick la ma ne. mais xanaa di nga bëgg ñu jaar Caajaay. Pape Fatick laa jëm. mais yow kii lu tax mu dëgër bopp nañ jaar Caajaay. koo gis dafa am koo koy xoolee maa ngi nii Baye Ndiaye aw maa ngi moom affaire mais yow laa koy xoolee <laughs> donc ñu ngi ndokkeel bu baax euh, njabootu sunu sang boobu rendez-vous bi incha allah le 13 janvier. le 13 janvier voilà le 13 janvier moom moom xam nga ñu demee moom. waaw waaw moom day ndimbal ci taxawaay. waaw kenn gënu ko ci. kenn ko ci mi ngi noonu. waaw incha allah rabbi le 13 janvier. mu ngoog dafay tombé sax ak foiru Serigne Boub bi xam naa dina tombé. <laughs> ñu dem Kaolack te bëgg naa foiru ren bi. mais Pape mu dàq foire yi passé. Pape maa ngi maa ngi gërëm. borom borode bi borom borode bi. Masalla jàpp la. sant yàlla boutique. sant yàlla boutique. ñoo ah, ma xam ne samay xarit la ñu Colobane. waaw Colobane ah ñooñu samay xarit. ñoo ma sañseel tey. Cheikh mooy rakki Maysa. ku la jox Maysa wala kan. Maysa ma jox. Maysa sama xarit la. waaw Maysa daal. moo ma woo barki démb. bëri na ci ay toof yu may sol. ci Maysa la jógee. Maysa ma woo daal ni ma ah. Oustaz Modou Fall jeudi. waaw borode laa bëgg nga sañsee ko. Maysa nag sant yàlla boutique yaakaar naa réew mi yëpp xam nañ ko. waaw ñu ngi ko Colobane. waaw seen numéro téléphone 77. 906. 28 95. bu ko defee itam ñu bàyyi ko xel. Mhm. Pape ma gërëm bu baax El dembaka Demba bu EDK iwul. Mhm. nit ku baax. Mhm. nit ku amal njëriñ réew mi. wallaahi waaye nit ku discret. Hmm, il est très discret. moom itam yàlla na ko yàlla gën a sàmm ci daraja yonent bi. alayhi salaatu wa salaam gërëm Naziru sekk Naziru Seck bu Kaolack bu Kaolack. moom itam nit ku baax. Mhm. sunu xarit sunu soppe. waaye Pape ma gërëm nag. Hmm. sama jigéenu bopp. soxna Aida Diallo. Aida Diallo. mu Cheikh Béthio Thioune. eh kookoy Aida Saliou. ñaanal ko Cheikh ñaanal ko yàlla bu baax. la ca Cheikh Béthio ngi ci moom. yàlla na ko yàlla yokk dëgëral. amiin jot nga fa dem wala demagoo fa. nanu dem seeti ko demaguma fa. nanu dem. waaye loxoom ñëw na ci daara ji bërki démb. ah kon de sama woote ba la dégg ana sama lekk. beneen bi ci des. soxna Aida gëj na maa wóolu de. barki démb ma waxtaan ci Serigne saaliw mu yónnee mu wan ma ni sama xol bi kenn amu ci place. ku dul Serigne Saliou fii maa ngi yow. waaw waaw lu tax yow rek ma jot. ku doon wax. maa taxani woon man maa nuyoo ne oustaz sujet bii la ñuy waxtaanee tey. soxna Aida Diallo ni ma. Aida Diallo ni ko. daara ji ma yëg ni tabax nga ko. li nga wax ci Serigne Saliou maa la ci dugal. waaye bërki démb nga waxtaan ci Serigne Saliou. bu doon safaan la nga ni à cause de Pape Cheikh Diallo. teraanga ji maa ko def te xeeb ko. bu dee toll na noonu jox ma sama lekk wala ñu dem seeti ayda pour mu tollanti ko ndax li nga bëgg laa bëgg dangay tabax damay tabax man damay tabax daara fan yi pour man nag. ba tabax ah. tabaxuma dugal kenn damay tabax dugg. mais daal pap dugaluma kenn rek. <laughs> mais pap damay tabax ñeer fan yi. oui mais pour man la ak samay doom. laa lan pouponnière lay tabax mais pour damay wut ay ndimbal ak yëpp mais pour sama yaay ak sama doom yi ak man parce que damay wutaale ku may ku may toppatoo. mbaa doo fa bàyyi damay bëgg ngeen sénégalais yi di fay ki may toppatoo. mbaa doo bàyyi yi ñëw di def si émission. <laughs> naa ko nag mais comme pouponnière pour man la xam nga leela lim leela <laughs> lim ñëw kàkkatar lépp xamoon naa ne <laughs> la fay di ñëw kàkkatar. ah, ah baax na. topp buubu nduur mi mu koy invité di ñëw kàkkatar. tan tan nee la sama xarit bi <laughs> wallaay suñu xarit la ñun ñëpp mais bon mais Pape am na yoo xam ne ni mënul ñàkk mais Pape mm. ay da Diallo daal mm. maa ngi koy gërëm mm. di ko ñaanal yàlla allahumma di ñaan kilifaam nga jiitu. Mm. muy Cheikh Béthio Thioune. Mm. yal na yàlla yeesal yërmandeem. maa taxani woon wax ko maa ngi ñaanal soxna Aida Diallo. amiin yàlla saxal teraangaam. maa taxani woon maa taxani woon dolli jàmmam. sama lekk dolli wërsëgam. sama lekk sama lekk ci darajay Seydina Muhammad. sama lekk sama lekk. mu ngoog yaa am naa fi yeneen événement ma jàllale ko. balaa mais Pape dimanche nag incha allah maa ngi conférence yéen. yow di nga sonn de. amoo jour noppalu jour de <laughs> dimanche maa ngi conférence yéen. yéen ok waa yéen gépp ñu ngi koy waajal incha allah. Ah, rabbi yéen dëkku dëkku dëkku ndeysaan góor gi siis. muy la set jabaram ju baax ji coro. coro fay góor dinaa ñëw. su ma jugee yéen la set le huit maa ngi jëm Mauritanie. damay ànd ak yow wan ni biig wan xatta. la xewle la xululu. fala alhaba wënni xatta yaa ngi Mauritanie waa Mauritanie gépp dëkk bu neex waaye ñu ngi wàcc ñoom itam le 12 seen bis insha allahu rabbi le 8 le 8 insha allah 8 ñoom itam ñu ngi koy wàcc alaaj mhm. Pape xam nga mhm. Mauritanie nag ay ah. soppe yu baax la nu fa am ah oui ah, ah loolu daal moom mooy moom mooy programme yi insha allahu rabbi insha allah yal yàlla defal ñëpp jàmm allahumma asalaamu aleykum wa rahmatullah maaleykum salaam oustaz tàkkusaanu Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci programme yi euh, ñu koy amal samedi 13 janvier euh, organisé par abu mbay euh, taalibe borom Ndiassane lii ngeen gis nag daanaka ku ci jotul message mooy sa convocation wala sa invitation ci tàkkusaanu Seydina Mouhamed boobule bisu fàttaliku ak ñaanal ak maam Adama Séni ñu koy amal vendredi 5 janvier maanaam ëllëg. bintu Seydina Issa Rouhulahi ca Cambérène ëttu euh, Thiawène euh, ñu ngi ci invité kullu kuy wuyoo Laye Makhtar et puis forum de la paix ak euh, oustaz Assane Seck bu télévision Futur Média organisé donc par Assane di programme bu am solo bu nuy amal samedi 13 janvier 2024 ca grande mosquée bu Yoff nu fay waxtaane nag bokk na ci jàmm jàmm rek nga xam ne jàmm du doy du du doy voilà lu dul jàmm jàmm ko gën donc forum de la paix deuxième édition le 13 euh, janvier je pense que jeex na ci ay euh, yëgle yu ñu amoon euh, Pape Samba ñu jàll ci tàggatoo yi li nag mooy màggal bu fi nga xamee ni mooy Wakaam. Serigne Sidi Makhtar. sëñ Sidi Max sëñ Sidi Maxtaar di suñu xarit. Mm-hmm. date bi nag incha allah. le 6 le 6 janvier la le 6 nag daanaka. samedi mooy bisu grand baalu Youssou Ndour bi. <laughs> ñu ngi joxante rendez-vous foofu ca Touba Wakam euh, di màggaliku Oustaz bàyyi ma ma àggali man tamit damay tëj gërëm samay ñooñ balaa may tàggatoo n'est-ce pas donc loolu yëpp ay programme religieux la ñu ngi leen ci invité bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam waaye faaw rek ñu tàggatoo incha allah daañu dellu si Euh, oustaz ak man alxames bële di ñëw euh, gërëm équipe yi ñu àndaloon service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média Pape Cissé ak équipe yi mu àndal euh, ñu ngi leen di gërëm Pape Samba Thiam moo réalisé gërëm Bouba Ndour mi ko produire Abdourahmane ñu ngi lay gërëm yow itam bu baax soxna Kia moo ñu doon taataanal question yeeg yooyu ci compte yu ñu am ci réseaux sociaux yi ci ndimbalu Fall Euh, euh, waaw euh, Chérifo Naar Pape Jean ak service digital bu télévision Futur Média ñu ngi leen di gërëm Seydi Jamil kontaan nañu ku lim Dioum en tout cas merci ci ni ngeen woon àndoo ni ngeen àndee woon ak ñun voilà ah. donc ñu dégg olof <laughs> boo bàyyiwul doo dégg olof <laughs> yi mu ngoog ñu ngi leen di gërëm ba alxames incha allah